ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, mbokk ak xarit yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu sur seen Teranga TV di am mbégte jàkkaarloog yéen tey ci euh, xeltu bi nga xam ne. ñi ngi koy euh, amal altine tey yemoo ko vingt 25 novembre 2024 ma am mbégte bu baax euh, bokk ko ak ki nga xam ne moom moo di euh, Sawolof moom miin ngeen ko ci kër gi bu baax a baax moom nag mu bokk ci coalition Diomaye président wala parti Pastef Jibi Ndiaye nag la ñuy bokkal plateau bi moom itam gan la ci moom nag muy président parti averti ñu fas yéene waxtaane lépp lu aju ci actualité bi ak la ca la nekk ci biir lépp Sawolof maa ngi lay nuyu bu baax ñu lay fay Seydina Aline di la jaajëfal di nuyu suñu gan di nuyu ñi ñuy seetaan di leen jaajëfal bismillah muy noonu comme ni ma ko annoncé monsieur jibi Ndiaye la ñuy euh, bokkal plateau bi aussi moom nag muy président parti averti euh, tey mu ñëw euh, sur Sen Teranga rawatina ci jotaay bi di xeltu monsieur Djibi ñu ngi lay nuyu bu baax. merci beaucoup mon frère Aliouna. Mohamed Ba. Ba Mohamed. qu'on a connu qu'on depuis fële euh, sa chaîne là bi mu nekkoon. d'accord voilà donc euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup invité. Mhm. ñëw naa fi il a quelque temps c'était un dimanche aussi. Mm. donc di rafetlu job bi ñu leen di suivre quand même euh, même si c'est à, à distance. Mhm. di mm. kontaan également ci présentation bi. Mm. bi ak tenue bi. Mhm. également di am mbégte lool jàkkaarloo également suñu co di ko nuyu di ko. sargal également. Mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan. di nuyu sama waa parti yëpp waa averti. di ñaan yàlla émission bi am si jàmm ak salaam et puis li ñu fiy waxtaan doon euh, xéwal ci askan wi. muy noonu jërëjëf. doon xewal gu bari actualité bi lañuy euh, waxtaanee li ci gën a euh, <coughs> fës nag bokk na ci Moustapha Diakhaté bi nga xam ne placé nañ ko sous mandat de dépôt bu ñu sukkandikoo ci avocat bi nga xam ne mooy maître El Hadji maître El Hadji Moustapha Diouf moom nag moo ñu ko jot a xamle di xamle ni itam ba tey moom mi nga xam ne moo ne Moustapha Diakhaté danañ ko daal di atte euh, jeudi 28 novembre gi ñu dëkkmal muy euh, ginnaawaati suba ndem sopp na yàlla ci fàttali rek moom Moustapha jaxate nag euh, dañu ko convoqué woon foofu la ca cybersécurité bi nga xam ne daal ca lañ ko daal di déglu ba niñ ko placé en garde à vue mu janoo ko àttekat bi mu defal ko li nga xam moo di mandat de dépôt ñi koy toppee nag ay kàddu yoo xam ne daal xawuta tegginu Adama gay itam ci ay xibaar moom itam taskatu xibaar boobule daal di nañu koy féexal waaye sous contrôle judiciaire lañ ko daal di euh, def moom mi nga xam ne moo di Adama Gaye danañ waxtaan itam jëm rek ci lu jëm ci mbirum Amir Abo ñi nga xam ne jamono ji ñu bare bari ñu ngi ci addu muy ab scandale bu ñuy euh, tudd moom nag mu ciy tudd ay tur yu takku ñu bari jàpp ne itam bu yëf ya demee ba ci biir ñu gën a xuus dana am ay tur ci ay ponkal yoo xam ne dinañ ci jot a rote loolu dinañ ko daal di euh, waxtaane waxtaane itam ci présidence bu assemblée nationale Ayib Daffé bokk na ci ñi ki ñu joxoñ ne moom nag moo fay toogee ban façon toogin la fa nar a toog moom mi nga xam ne moo di Ayib Daffé ak itam euh, ban assemblée la ñuy xaar ci ñi nga xam ne ñoo di waa PASTEF ndaxte amal nañu ab séminaire boo xam ne tàggat nañu ca seeni député urgence yi nga xam ne mu ngi leen di xaar ak itam yan façon député lañ war a doon ndax mënees naa yaakaar ab euh, rupture daal di am euh, ci li nga xam moo di assemblée bi ci bu njëkk saa wolof Moustapha ak euh, mandat de dépôt ñu bari jàppoon ni quand mën na mënoos na mënoon naa ñàkk ñu mandat de dépôt ko ndax ay kàddu rek la yi ñu bari ñu ngi ko doon wax ne est-ce que féexaloon ko ne ko nag lii bu ci jaarati gënul ñu mandat de dépôt ko. waaw di wax ne bettul kenn ndax li mu wax dane fàng luñ dul jeex kon jarul. def mandat de dépôt mu jëm li fi daan xew muy 6 mois. mais li nga gis mooy dem na franc grand délit ndax su ma juumut le 28. waaw ginnaawaat suba rek. waaw kay léegi nag mu des li ñuy wax. xam nga man damay wax ne yenn nit yi seenu dëgg laa xamul fu mu war a mën a nekk dañu war a nekk pour ñu am pénc mu dal. ñu war a nekk bu dee ña ca nekk ne ay droit de l'hommiste lañ mën naa ci tudd ku mel ni Alioune Tine nekk daf fi nekk ak i moromam Seydi Gassama Birahim Seck keneen ak keneen ak keneen mais li may gis mooy chaque fois droit wu ah, coupable yi mm-hmm. lay défendre coupable yi tamit am nañ droit maanaam tey ñi nga xam ne dañoo def wala ñu doon auteur wala droit wu auteur yi boog ma wax ko parce que fi mu toll nii il est mais bu may wax mooy ki nga xam ne dañoo ne dafa def supposé bokk wala nangam wala koo xam ne sax mën naa ko waxee noonu parce que lu ne fàng la moo tax ñu yóbbu ko fraag benn waaye doo gis mukk muy défendre victime yi mm-hmm. ki nekk victime ci viol wala ki nekk victime ci ñu sàcc ko wala ki nekk victime ci ñu rey ko wala ñu rey mbokkam wala ñu reyal ko mm-hmm. doo gis Alioune Tine leen défendre man nag dama jàpp ne nit lu mu def def su yàggoon bañ tëj ko it ñu ne fañ ko tëj baaxut méngawut ak fu nit nekk kooku boobaa jar naa defendre léegi ma liir ci tey la tribune mu ne euh, moom Moustapha Diakhaté deful lu may wax li mu xalaat nit ñëpp li ñuy def dañ koy xalaat ki jóg di sàcc sàcc ji sàcc la sentir ki jóg di saaga ndey sàcc la sentir saaga ndey ki koy wax noonu moom tey benn muy bu dee ay avocat man damay nangul avocat lépp lu mu def pour défendre client man du ma ko ci ŋàññi même bu dee mën naa ci am xalaat ne ko li nga wax nii kat demeewut ak noonu wala du dëgg waaye xoolal ñaari avocat yi défendre Moustapha Diakhaté bi benn nit rombee ne leen da ngeen ni muy kàddu goo xam man jàpp naa nit waru koo xam ak waaye kooku ñoom bu ñu ko xàmmee woon ba jàpp ko tey pourtant loolu daf leen naqari te ñi ngi bëgg buñ sañoon loolu waaj di ko wax te moom foofu mu nekk li ñuy def mooy bokkul sax ci ñoom fa ñuy liggéey muy tribunal mais mën nañ leen wax ne peut-être que dañoo taxawoon di porter presse noonu laa ko jàppee wala dañoo taxaw di wax ak journaliste yi lu ci mën a am mais na sa resque taxaw di wax ak journaliste yi rek mbir romb la wax la kàddu yooyu daf la déranger léegi anamu nag Moustapha Diakhaté mi nga xam ne dafa toog ay sénégalais voté ba pare mu wax leen ne yéen vous êtes des maudits maanaam baatu alku loolu lay tekki di baatu arab boo xam ne dem na ba dugg ci làkk yi euh, maanaam te du firi lu may torox mm-hmm. da ngeen a torox léegi baatu da ngeen a torox bi bala nga koy wax mooy xoolal ndax bu sa sëriñ nekkee bokkee te wuta mënu ko vérifier mënu ta wax tey nañ fi mu aju tey muy daara xudóos sëriñ sa fa nekk yépp amul ñu ci voteel Pastef moom tey dafa am doom waaye na xool ndax bu doon tey baayam lañ ko wax wala doomam lañ ko wax kon baat bi est-ce que lu ñu war a wax la wala déet wala comme li Alioune wax ne waaw liñ koy wax buñ ko yemale rek ci moom waaw kay d'accord nangu na buñ ko yemale rek ci moom na law fépp mboolem koo xam ne taxaw na wax lu dul naka sa ci réew mi yu demee nii suñ bëggee am penc mu jàkk parce que penc mi dafa am kàddu yoo xam ne dama koy wax ne ñun suñu philosophie morale ñun waa Sénégal yemul ak philosophie morale bu France wala bu yenn dëkk yi ba li nga mën a gis muy société civile boo xam ne société civile à la française man dama jàpp ne warta mën a yem ak société civile à la sénégalaise parce que sa philosophie morale man tey euh, Aliou hmm. maafe mu neex laa añee macha allah ay na maafe gerte maanaam maafe yàpp bu neex mu neex waaye nii ma maafe mi jàpp <laughs> tey bu ma ma bilimbaanee bu ma jàkkaarloog yow léegi jékki-jékki géex géex gi am doole ba xeeñ euh, sëñ njaayam mi mm-hmm. ak yow mm-hmm. maanaam géex naa nangam nangam mais dérangé wu la yaa ngi yeggale sa émission mais tey fii maafe mi ma añee bu ma jàppoon bu ma jékki-jékki ne peep fii mu xeeñ xunnu mm-hmm. voilà gis nga sa réaction maanaam bi ma nee peer sax yaa gis yaa ngi ree maanaam pour ma wax la rek philosophie moralu dëkk bu nekk yamuñu nuñ leen jàppee ma ne peer fii même boo bëggee ak loo bëgg bëgg bëgg continuer émission bi def affaire professionnelle <laughs> dana am loo xam ne mi ngi la topp bi ngay xale nga xam ne bu ko nit masaana def ci géew ah wala ñu def ko fu mën a nekk wala ñu mm. jékki-jékki ne diw nangam nangam la lay jàpp dalay jàpp mm-hmm. te alors que loolu bu dee ci France la wala yenn dëkk yi du nekk kaa ah, waaw noonu ñoom ci la affaire bi di leen déranger. waaw ah, léegi ñun ni ñu géex di bu fekkee ne lii du metti tubaab yi ba nga jàpp ne bu dee fee ñu ngi ko fay wax fii def ñuy metti loolu mooy li nga xam ne moo am kon liñ ciy njëkk a wax rek xam nga da ngay taxaw ñu naan rupture la ñuy xaar wala nangam dèjà c'est déjà rupture parce que lii ko mosaan a dal flagrant délit doo fa taxaw. Hmm. beneen bi nag muy loo xam ne ñi ma gis ñuy indigné wu parce que man indignation sélective. dama ci d'accordul euh, kii bëgguma nag ci àdduna may may may jàpp ne diw wala nangam nangam mais certain 14 avril 2023 à la DID DGID après 21 heures dafa am lu xew li xew lan la dafa am benn waay boo xam ne dafa gis ni yoonu réewam di doxee mu ne ñi ngi assister maanaam li ñuy wax clochardisation de la magistrature maanaam magistrat yi ñi ngi leen di clochardiser waxul magistrat yi ay colossar ngeen de maanaam tey nit di la buux li fi mag Sall doon def yëpp te loolu confirmé nañ ko ginnaaw bu Karim Wade euh, ne gis sàngam nangam ak nangam lan moo fa xew woo seen député nekk ak kon magistrat yi loolu art la woon ci ñoom ñu ne leen bu ngeen wëtu kii leen nekk njiitu réew di l'exécutif dana leen waya di loo lan moo xew après le 14 mi ngi nii. Vous pouvez lui opposer votre force. Voilà. Non, non, non. Mais vous n'avez pas vu le mandat. Nous n'avons pas vu le mandat. Nous n'avons pas vu le mandat. Maintenant, à ce que tes droits soient respectés. On constate la violation. Absolument. On ne constate pas. C'est pas bon. Non, je m'en pas aussi. La loi, la loi, elle est pour être respectée. Et c'est en présence du secrétaire général du syndicat devant son bureau des impôts. Des impôts et domaines. Voilà. léegi li ci am solo mooy est-ce que lii la ñuy assister est-ce que Moustapha Diakhaté dañoo dem këram cueillir ko vingt deux heures wala vingt et une et quelques est-ce que daa woor ba ngoon ak lu mën a am muy devant impôt et domaine ñu teg ko fa ba moom sax moom mooy defal ñi mu àndal naan leen bëgguma coow li dalul Moustapha Diakhaté de amul benn droit am boo xam ne tey gis nga ne salfaañe nañ ko saaga na ñëpp ñun ñëpp ñu xas ñu mu naqari ñenn loolu mënula a jur trouble à l'ordre public man Moustapha Diakhaté dëgg la sama moromam baay la mais jàpp naa ne sama baay du moromam sama papa Pastef la votel dafa yeewu fajar teel jóge mbuur gi mu nekk su ga nga xam ne fa la daan liggéey fa la dem jóg fajar bi mu vootee ba pare woo ma ah woote naa ba pare. Hmm. mais kooku la naan ma kooku la Moustapha Diakhaté di wax ne dafa alko wala man mi jóg la wax dama alku sama yaay sama nday man dem voté li Ousmane Sonko ba di ma taxaw di ma masaw ñooñu lay wax ne dañoo alku man loolu mën na ma xari léegi nag boo waxee ñu ne la lu tax diw bon gis naa ci sax yoo xam ne ay nit ci taxaw di ci wax ce n'est de personnel parce que nekk naa ci benn télé nit laaj ma ba ñu dugg ci kaaw Azura mu wax ma ma ne ko Azura li mu wax waxi de la te damay laaj Sampol Dias tey fii laa koy waxewaat mu porté ko plainte parce que mbir yi li mu def ak lii li Moustapha Diakhaté wax bokkut Azoura benn nit la saaga muy bàyyi jàmm maanaam moom la niroo lekk safulaa may wax saaga sax parce que bëgg mu koo tooñ moom la niroo leeg dàngin gu mu gis ne diw dafa niroo bàyyi diw loolu Barthélemy Dias la ko wax Barthélemy Dias ak rakkam ji jigéen ñoo bokk benn baay Barthélemy Dias Jean Paul Dias ay baayam ci laa ne journaliste bi lii mu wax kii maanaam li ñuy wax euh, damaa juumoon sax di wax far fardu euh, kifaaya dafa am loo xam ne fardu ayni la ak loo xam ne far fardu kifaaya la di ko méngale maanaam loo xam ne boo ko waxee peuple bi yëpp mën nañ koo jóg régler seen bopp mënoon a jóg régler ko seen bopp procureur de la république représenté ministère public autosaisiru mën a taxaw askan wi yëpp parce que loolu yëpp ñëpp ko bokk mooy li Moustapha Diakhaté def waaye bu dee li concerné Barthélemy Diaz wala nangam man mënumaa dem naan damay porter Azoura Fall parce que nee na Jean Paul nangam man du ma Jean Paul du ma doomi Jean Paul Diaz du soxna Jean Paul foofu laa waxee ne léegi nag bu ñu waxee nag nit ñëpp nañ ma wax ñi muy naqare ak ñooñu nañ ma wax est-ce que li Azoura wax waxu na wala waxut yow nga filmeel ko sa bopp ñu filmeel la nga denc ko sa téléphone néeg ba jamono yi nga génne ko ma teg ci na Ousmane Sonko su ko nit dee jàppale sa comportement nga war a defar ba mu yegg ñun loolu la ñu amal askan wi Ablaye daf fi waxoon les libéraux bëgg na ñu yegg def fi cinquante ans mën nañ fi def cinquante ans mais dafa mujj échec loolu mujjul am Ousmane Sonko dafa wax keroog ñu ne deux mille cinquante ba deux mille cinquante mu ne leen mën naa ne mais pour que loolu mën a nekk il faut Pastef di critiquer Pastef loolu bërki démbam bële yegg siwaat ci foofu lu bari lu ñuy wax homme politique yi naan ñi ñuy àndal seen militants yi ma wax ne it loolu yoonu homme politique yi nekku ci sëñ bi man dama ma jur fañ ma juree sama ndey ak sama baay yar ma réew naa wala yaru naa ñoo ma yar ma am benn temps pour ci ñenn ñu man laa jël jox la sëriñ daara bi mu jàngal la wala sëriñ tarbiya bi mu jàngal la à l'âge de sept ans wala douze ans wala nangam kooku sax responsabilité bi mu am ci taalibe bi politicien bi amu ko parce que yaa gën yàgg moom wala ku nekk fii mais politicien bi il te faut nga dem ba am plus de 15 ans jëm kaw wala 20 ans jëm kaw ñii 30 ans ñii 40 ans wala nangam nangam nga réew ci sa yaroo sa kër ndey ak sa kër bàyyi réew nga wala yaru nga amul benn responsabilité homme politique bu ñu ciy wax. Hmm. il est temps li ñu bëgg a def rek la loo homme politique yëpp moom li ñu mën a def mooy homme politique bu arrivé jusqu'au ko pouvoir teg justice bu moom boppam képp koo xam ne tooñ nga mu bañ ci xool kan moo tooñ. mais lan la hmm. lan la def wala muy Azura wala muy docteur Diallo wala muy euh, Moustapha Diakhaté wala muy Amadou Bamba Sall wala muy Ibrahima Aïdara bi saaga woon wolof yi wala Penda Ba ci jamonoy Macky Sall yépp mu doon penn parce que conséquence yi ñuy lii ñuy dund yépp ay conséquences la ci Macky sàll bu fi traversé yor ñu diggante bi mu yoree ay nit daan nekk ci moom di def lu ñu warul def ay moom mu daan bàyyi di jël injustice di ko injustice di ko xeexe ñuy teg nit ñi injustice ci boobu laa jub jàmmaarloog Macky Sall di dénoncé la Sidi Lamine waxoon ne wax leen ko ca kaw la nga daan gis Ablaye Wade di ko ba Sidi Lamine di wax ay moroom sëriñam la doon wax attention. Mhm. wax leen ko ko ca kaw. la nga daan gis Ablaye Wade muy xew ci jamono Ablaye nga ne gis naa lu duxul dëgg soo ko gisee Macky Sall di def wax leen ko duxul dëgg sinon dana dem a dem ba def nangam man foofu laa nekk. te jàpp naa ne li may def mooy li projet bi laaj. Mhm. di leen jaajëfal bu baax. donc monsieur Djibi euh, bu dee APR moom dañoo jàpp ne teg loxo Moustapha Diakhaté aadama gay dafa bokk ci campagne bi nga xam ne Pastef jël nañu ko ngir euh, installer fi dictature bu ñu waxul tur bi dëggantaan euh, dañoo bëgg a napp askan bi noppiloo ñenn ñi pour mën a jaay gaa ñi ginnaaw bi ñu amee majorité fële ci ensemble ba ndax nangu nga loolu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 Euh, contexte bi Moustapha Diakhaté waxee c'est un contexte d'après élection dañu dem élection euh, Pastef gagné Moustapha Diakhaté combattre leen pour moom dafa jàppoon ni Pastef warul gagné mu am lum wax mais loolu mu wax dama lay jox benn aspect bu ndaw benn élément bu ndaw. Hmm. pour wax ne la wax boobu mais Ousmane Sonko mus na ko wax. te dama la hmm. koy liiral. comme li mu wax nii. waay dama la koy liiral.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 laaj na ma votre indi man man man dagguma la ah sincèrement. non damay laaj li ngay wax da nga ma laaj ne ma non non non. laaj la wax non frère mon frère. boo ma dégloo rek daañu débat. parce que man parce que man boo ma dégloo rek boo ma dégloo pourquoi. non da ne vous. parce que incha allahu. boo ne woon passé mosu ko non ne non non même rek. non dagguma la non dama lay ah. ñaan benn affaire.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 ose défier la constitution ñu bàyyi ko muy circuler te ba tey dégg ma waa Pastef ñaawlu ko kon man dama jàpp ni dama jàpp ni euh, justice na def joobam parce que joobam la war a def mais gis nga mon mhm. dëkk bi kenn mënu mënuñoo tere wax déedéet. da nga jàpp ne dañuy def nii pour. kenn bañ wax mais parce que parce que li ñu seetlu man de li ma seetlu man.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 wallahi azim dëkk bi kenn dootul obéir ci nit koo xam ne tu es un représentant de l'État. loolu moo am. d'accord no non xaaral tuuti parce que tamit. Euh, daf ah, faaw ñu faaw euh, ñu évacuer yenn yi. waaw léegi may may ma kii kii nuyu. comme euh, li nga noté après nga ñëw ci kilifa gi maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax mon frère. Mhm. di la dal jàmm. donc parce que li tax xam nga débat bi déjà c'est pas équilibré. te loolu dama koy ñaawlu. non am na keneen non non non non non xaaral xaaral rek xaaral xaaral. heure bi ah, Aliou Aliou chaque fois chaque fois chaque fois mu wax ko. non xaaral tuuti non xaaral tuuti Aliou Aliou danaa ko wax de. chaque fois mu wax ko ci ginnaaw lañ ko rek. non non dama ne non non chaque fois mu wax ko damay bañ ñu porter préjudice ci média yi. même le parti en pouvoir wala seeni alliés. soo invité ñaar fii da ngay invité ñaar fii. loolu mooy li gën a juste. bu fekkee ne da ngaa invité woon nangam nga daal di wax nga ñu taxaw <laughs> non bokk fu ñu nekk ah, yow yaa yow yaa bisaat nga may li may wax non non non yow non man la am ci man man la am ci man naa bañ a am ci yow problème mais man la am ci man voilà non non waxuma ak yow waxuma ak yow damay wax rek pour que le débat pour que le débat soit mm. équilibré mm-hmm. loolu mooy li njëkk a am solo ma ñëw ci li nga wax. Hmm. da nga ne 2016 Ousmane Sonko étant député loolu du dëgg Ousmane Sonko 2017 la nekk député kon xam nga ne da ngaa jub nangu nga wala nanguwoo wala ba tey te yaa ngi wax ci référendum li du woon ci référendum. kañ la woon. 2017. après référendum bi kañ la woon. référendum 2016. très kañ la ko déclaré propos yi. 2017. très bien kon fan laa juumee. non da ngaa juum yaa ne de référendum. 2016 damaa bëgg nga ñu waxante ah, rek d' accord d' accord. voilà pour mu teel am na. merci mu des nag propos lan la wax. c' est bon. mais bàyyi ma wax damaa daj li nga wax wan na ne li nga wax amut. ci date bi nga wax ne il faut rappel historique te booy wax historique li ñuy wax anachronisme da nga koy moytu mooy nga wax fee yoo xam ne bu li ngay wax parce que bu doonoon say wax loo bàyyi xel maanaam danga ko gën a mën a wax gën koo mën a niral li ma lay giiñ mooy peut-être que dañ la ko soufflé ki la ko wax juum na wala yow nga juum non non dama ne li ma lay giiñ saxaluma may ma tuut li nga doon bañ a ngi nii xam nga te pourtant da ngaa wax ba laaj ma xam nga sànq da wax ba laaj ma xam nga man aw ma woon problème sànq bi ngay wax te gis nga waaw non de de da nga maa laaj ma ne la est-ce que da mais bi ma la daggee nangu woo waaw non non après nangu woo léegi loolu laa lay fàttali li nga bëgg wax est man yow waaw léegi. xam nga man voilà jërëjëf ah. jërëjëf. dinaa wax li ma bëgg a wax. xam nga li ci neex mooy sànq bi ma ko defee. Mm-hmm. autant ni mu la naqaree bi mu la bi ma xasee xam ne naqari na la. voilà. bi ma la ko defee bi nga ma wanee ne naqari na la dama taxaw te pourtant damaa jàpp ne danga ma laaj koo wax ba interpellé ko nekk ne daal ne vous xam nga boo taxawoon ne Pastef sax waa Pastef waa nangam waa nga amul problème. mais boo nee vous man mi toog boole nga ma ci su ma la tontu damay jàpp dangaa bëgg ma tontu la léegi bi ma la waxee mooy lii nga def pourtant bi ma amee même réaction da bañ mais heureusement li nga doon bañ. yow rek xam naa ne man ngay déglu. parce que man li may wax dama koy wax à travers yow muy muy wax su ngeen di jëlati dara da ngeen koy jël def ci sérieux buy tax ngay wax beneen bi muy damaa dégg sànq nga wax benn benn mbir ne article 2 article 2 waxul loolu. article 2 lan la mu ngi traité problème mu capitale de la république du Sénégal e Dakar et le. constitution du euh, Sénégal. constitution du Sénégal laa la wax. liiral wàccal ci suuf. waaw ah non non même boo wàccee article bi nga wax du article 2. Ah, ok wàccal suuf c'est l'article 2 qui traite de la souveraineté du Sénégal wàccal ci wax ko article 3 wax ko beneen article wax ko. Eh, eh, sëñ beneen article li ngay wax ni am na mais du foofu. sëñ bi defal ndànk rek c'est l'article 2 de la constitution qui l'a le je je je rappelle l'article Bismillah. aucune section de la cour du, du peuple aucun individu ne peut s'attacher l'exercice de la souveraineté c'est l'article 2 nga wàcc premier point deuxième point ba ci troisième point tu vas retrouver ce que je viens de te dire du ma ci dellu ginnaaw d'accord man gisuma loolu waaw ah waay bu la neexee est-ce que tu as la est-ce que tu as la bonne constitution léegi est-ce que dooma may <laughs> est-ce que dooma may ma ma ma ma continuer li parce que bi ma lay wax yaa ngi nii dagg gi neexu la non parce que parce que boo duggee ci article yi xam nga xam nga constitution du lu ma inventé juriste yaa ngi may seetaan boo bëggee nga jël kenn en ligne mu dugg li ma lay wax ça se dans l'article 2 de la constitution qui parle de souveraineté je maintiens. ah d'accord léegi kon maintien woo 2016 bi quoi. waaw yow waxoo sëñ bi. Hmm? waxal leneen waaye ah. voilà waaw léegi da may léegi nag da may bàyyi ma. yow rek laay ma wax quoi parce que sànq bi ma la waxee. yow rek laay dugg moom xam nga sànq bi ma la ko waxee. non non mais mais amul problème da ngay def ni ma defoon. da noppi. donc monsieur Djibi léegi del continuer allez-y waaw allez-y ñu ngi lay teewlu. ma yeggale. waaw yeggale waaw rek ma continuer. waa très rapide parce que bi mu ne ma bu ma dagg dama koo bàyyi dagg. waaw très rapidement demal waaw lu dëgg voilà ñu mën a damay wax ne li Ousmane koo waxee. Hmm. bu ne un peuple qui élit des dictateurs complice la te muy dëgg. man mi wax naa ko bi may wax ay vote parce que man loolu dafa bokk ci li ma xalaat ba évoqué way gëm yi ne leen yonent bi nee na ku fekkee lu ñaaw na ko dindi. ak say loxo boo ci tëlee dindi ko ak sa làmmiñ boo ko tëlee dindi ko ak sa xol te loolu mooy li gën a faible beneen bi ma ne peuple bi dañu am jour vote ñuy dindee seen loxo lépp loo def loo xam ne mooy doon conséquence ëllëg ëllëg boo ko defee boo dee yàlla dana ko laaj dana la ko laaj bi ngay wax ni 2017 la man bi may déglu Ousmane Sonko muy wax loolu damaa pare temps boobu man euh, nekk moon sax ak waa Pastef muy 2000 euh, muy 2017 maa ngi doon wax ak sama benn xarit bu ñuy wax aboo Jaxate et temps boobu moom moo doon Pastef man ma ñàkk ànd ak Pastef naan ko Ousmane daa caalit mais lii xëcc bu daggul dikk peuple bii ma gis avec euh, ça ni mu waxee ak ñoom peuple da nga leen ni laaj résultat yàlla laajuñu résultat effort la ñu laaj yaakaar naa débat boobu. c'était en 2017 su ku ñuy wax Abo Jaxate wala Fallou Mbodj wala keneen ak keneen ñu nekkoon TRS tees ak ñoom koo Gueye ak ñoom Mourchid ak yu demee noonu ma ne ko yàlla daf ñu laaj effort mais résultat bi moom moo ko gàddu beneen bi muy caalit wala abandon de post yàlla dafa wax yonent yi ne leen woote rek laa leen sant kiy gëm ak ki ñàkk gëm man maa ko yore kon Ousmane na woote rek ña koy gëmi wala nangam ak nangam moom la le fait que peuple bi toppuñ ko ci loolu malgré li mu wax dëgg la pour nga xam ne li ngay wax maa la ko gën a maîtriser moo tax bi nga toogee ci saa si rek maa ngi lay defaraatal ne la du dat bi c'est pas la bonne date yéen da ngeen am problème mu réew mi ngeen dugg bëgg a wax ak waa réew mi te xamu leen réew mi ci problème mu chiffre wala problème mu nàngam ak nangam man bu may toog xam nga lan laa njëkk a xam sama réew. histoire am fa mu dale fa mu nangam ak du lépp ngay xam. mais boo doonee politicien wala nga doon journaliste wala nangam dangay ngay jéem a góorgóorlu ci li ñuy wax culture général mais déglu nit ki wax rek pour tontu ak déglu ko pour apporté ci xam-xam li safaa Diakhaté wax nag ak li Ousmane ko wax c'est diamétralement opposé parce que Ousmane dafa ñëw ne peuple buy fal ay dictateur ay sàcc ay wurkat kooku complice la maanaam yow looy yow noo koy tekkee mooy nit koo xam ne yaa ngi dem di fal bi ngay fal nga xam ne kii ngay fal ay di ab dictateur la am na nga voté ko pare complice nga. léegi nag am nga droit pour falu yow am nga droit traité peuple de complice. am nga ci kay déedéet euh, loolu bokkut ak traité peuple bi complice. ok. bokkul de. d'accord yow da problème mu dégg-dégg nga am. ok ok mais nag may may nag ma wax. parce que sànq da maa dagg te da nga maa wax ne bu ma la dagg te bi nga ne bu ma la dagg tëj naa sama gémmiñ eh. képp ko bàyyi ba nga wax ba pare. waxal waaw léegi non non waxal da ngay noppi ma wax. Hmm? Hmm? allez-y léegi bu bu Moustapha bi nga ma nee ma bul ma dagg. ne ma nangam ak nangam taxaw naa pinge nekkuma la waxal ak dawal ak. nangam nangam xam nga ba ma convoqué article bi ba ma convo safurla ba ma convoqué déclaration Ousmane Sonko bi ba ma ko convoqué nga nekkatul à l'aise dans ce plateau. parce que xamul tax fàtte woon nga wax ji te il fal fallu il a fallu lu coow li di bare benn nit indi leen ko te pourtant lii may wax nii am na loo xam ne ci biir. Aliou est-ce que moo dimbale mu bàyyi ma ma wax. non mais attends bàyyi ñu rappelé non non mais déedéet non bu ma rappelé yow mi pour wax wax bi léegi ce qu'on va faire mais waxal ndànk bi. Aliou Aliou Aliou non non yow yaa def ndànk non Aliou Aliou Aliou def mooy attendez waaw def leen ndànk Aliou kan moo war a dal non li ma la bëgg wax dama ne la léegi danga nga war a xam ni li ngay préparé di ñëwee ci débat loolu la nit ñi di préparé ñëwee ci débat te li ngay wax li ngay wax di ko ne nit ki am na lu gën a sérieux loolu war ko mën a condamné te bu la ko waxee ni nga nangoo woon bee ni nga nangoo bu Moustapha Diakhaté bi ne c'est dangereux waru ko wax parce que dafa offensé sénégalais yi man Sonko ba mu waxee loolu dafa maa offensé man. parce que il m'a traité man il m'a traité man en tant que Djibi Ndiaye voté lu ma woon Pastef à l'époque dafa ma traité man de man de d'imposteur traité ma de un de de de voleur traité ma de koo xam ne yow li nga voté gëmoo dara bëgguloo dara moo tax nga voté nga votel keneen. d'accord. kon ni mu la naqadee tey ba nga tudd sa papa ne xaw ma lan dafa metti sa papa. noonu la ma naqadee parce que man tamit sama papa voté lu leen woon. léegi loolu loo ciy wax. pour ñu avancer parce que. non non non pas pour ñu avancer non pas pour ñu avancer. Ah? Aliou yéen rek a mën a wax wala yéen rek a mën a ñaawlu wala yéen rek a mën a métti. donc jibi fii ñëpp a mën a métti lu sëñ bi donc jibi waaw ba may baal ñëpp a mën a ñaawlu. waaw c'est bon. Ah? donc li ma bëgg mooy. Sa Wolof yaa ngi woon ci entre propos Ousmane Sonko ak yu Moustapha Diakhaté moom nga doon comparé yaa ngi doon tekki bu usmaan Sonko léegi nag comme tekki nga bu Ousmane Sonko tamit war nga ñëw. ci voilà man damay ñëw wax ne. nga tekki ko euh, ñu xool dafa ñëw ne. waaw leen voteel ay nangam lañ. maanaam dafa dafa indiwaat. voilà li Pastef voilà yaa ngi dégg. man fi may waxee mooy. que Ousmane Sonko la mu wax. taxaw ne. peuple buy voteel. yi ku nekk dictateur. nangam nangam nangam complice la. complice u raykat. complice u sàcckat waaw bu fekkee da ngaa xam bi ngay voté ne. kii ngay voteel lii ak lii ak lii nangam la man su may wax ci bu ma koy condamné su ma xasee dégg mu ne peuple buy voteel ku mel nii bokkut ak kii ngeen voteel ay yéen ñi ko def ay complice raykatu nit ngeen wala nàngam ak nangam parce wax dañ koy dégg. ci nit ki man nga wax benn mbir xam nga man traité naa fi kaaw Moustapha Ba bokk naa raa personne yu njëkk a jël ne Moustapha Ba war nañu autopsie wala nangam ak nangam lu tax yóbbu wuñ ma wala woowuñ ma parce que fa ma cay wax saa yu may kii damay évoquer loo xam ne su may taxaw da nga may dégg may wax ne. jël leen seen responsable pour def nangam ak nangam mais te taxaw ma ne nangam ak nangam moo am wala dañ koo nangam wala dañ koo nangam ñaari wax yi boo bokkuñ sens boo xam ne. moom la ñuy wax wolof nag la Moustapha Jaxate wax dañoo alku moo tax ñu def ñu voteel ñii. donc bee moo gën a diis bu Ousmane Sonko. foofu bu Ousmane Sonko dafa. <laughs> donc. xam nga. complice euh, booy nu mu tuddee ci sama sëriñ. man damay bëgg. débat non non non Aline Aline. xam nga nag mu. non non man aw ma ci problème de. ji non non non non bu la neexee débat bi. moom mu ngi ci léegi waa léegi waa léegi nag débat léegi ñun nañ ruubon non benn pour ah, ah non non kaay pour ma wan nit ñi ne. non dafa <laughs> xaw ma la tey laa la mas a tey laa la mas a tey laa la mas a tey moo mer man kan moo mer man kan lu tax nit jàpp ne dama non non man jaa xoole. mais mais mais mais mais s'il vous plaît parce que non dañoo bëgg. bon xam nga dañoo bëgg. voilà dañoo bëgg débat mais bu ko def nit ki. ma. non waaw mais ba ñaan ba ma ñaan la ko ma génnee. ma génnee ah, fii dafa métti. comme dañoo ah, nekk dafa métti xam nga défendre lu lu dëgg. waaw léegi may ma rek benn affaire. sa waay ngi sonn mi ngi onk mi ngi def lu ne. léegi may ma benn affaire te munoo fexe ba li Moustapha Diakhaté wax gën a garaaw. Ousmane Sonko wax léegi may ma benn affaire ji bi bu fekkee mën nga. mënoo ko fexe yow yaa may déglu nag xam nga lu tax. non non may déglu ba pare. parce Aline yaa may déglu xam nga lu tax. dëgg yàlla. man laaj na ma. ma tontu ko mu ne ma noppi. est-ce que boobu continué naa ci. foofu laa bëgg a ñëw. waa léegi yow da nga naan kii lim la def. bu defal naag fa jëm si saa wolof léegi jibi man aw ma problème si en aise ci lépp lu may wax. jibi li ma lay wax bu may wax man samay wax. waaw attendez dama fonk wax ba kuy jàkkaarloo may wax li may wax gëm ko bu la neexee nga ne dama mer. d'accord mais soxlawuma mer parce que li may wax. d'accord c'est mes arguments te li nga moo tuxoogum taxaw nga ne 2016 la. léegi loolu du dëgg. jibi may ma ko may parce que. taxaw nga wax fii ci loolu du dëgg wala yow sax yow da ngaa lire article 2 fekk fa la ma la ma fa fekk nga doog a taxaw euh, ndax Ablaye Ndiaye moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu xaw a nu mu tëddati. may naa la mën nga wéyal su ma paree. ma jox sama kilifa gi. li may wax rek mooy ñaari baat ñaari baat li nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax ak li Moustapha Diakhaté wax bokkul xam nga mi ngi mel ni rek nit ñëw taxaw ne la mën naa ko joxe ci exemple nga ne laa ilaaha mhm. boo fa yemee weddi nga yàlla ci tawxiid waaw non non laa ci ci taw weddi nga ne yàlla amut dara amut lu tax léegi weddeetoo yàlla nga saxal yàlla lu tax lu leen différencier ba mu des ilallah yaa ngi xool jeu de mots yooyu li ko li ko andi maanaam peuple bu fal complice peuple bu fal dictateur fal nangam ak nangam complice nga. maanaam fal assassin. waaw fal assassin fal nangam ak nangam complice loolu loolu nga maanaam ku làq assassin lan nga. assassin nga assassin nga. kon loolu la traité peuple bi. wa wala déet dama ne. <laughs> ñu ñi leen fal boobu. peuple bu fal assassin. waaw loolu mooy peuple bu fal assassin te xam ko assassin te loolu mooy dëgg man ñaata yoon ngay dégg bu ma doon campagne ci wàllu élection ne nit ñi na ngeen jël seen responsabilité le jour di vote ëllëg yàlla da lay wan vote waxuma nag ki ko voté te jàpp ne ku baax nga amal affaire kooku doo complice man tey ma jàpp ne président Diomaye daa baax. jàpp ne Ousmane Sonko daa baax jàpp ne ensemble bii ñuy jël li ma Pastef jox mooy li gën parce que loolu lañ ma wan ñu dem ba ëllëg ñoom ñu nekk di def dictateur ma complice mais bis ko xamee avant ma koy voté complice la est que yaa ngi comprendre bu baax. d'accord moo tax ñaari baat yi bokkuñu. d'accord nit nag mën ngaa bañ a xam sa degré de compréhension fi mu yem fa ngay àtte nit ñi. li mu may àtte ne ma voilà bi mu tuddee nangam dama am problème parce que moom moo ko te bi mu koy wax moom xamul dat bi. moom leer na fii nee na nee na 2016. waaw ah, loolu moom jàpp naa ah, non non déglu ma rek ma taxaw ci pour mu xam ne man am naa ko. te man toog naa ci groupe bi ko Ousmane di wax ma koy reetaan. ma naan dafa sax ñii dafa caalit waaye na sàlloo xam ne yàlla wax na ay yonenteem ne leen. yéen effort laa leen la maanaam dama leen a yónni rek. waaye kiy gëm ak ki dul gëm man lay neex ci man lay aju minorité absolue laa bëgg wala nu mën a mel. lii fàttali naa ko te boo demee li ma lay wax ni en 2017 après élection yi. boo laajee ku mel ni Fallou Mbodj Abo jaxate ak ñeneen ak ñeneen wax kon li may wax man fàttaliku naa ko xam naa ko. Hmm. te xam naa lan la Ousmane waxoon xam naa bu ma waroon a metti lan moo tax mu may metti parce que nag man nit maanaam amul ku fees sama bët su ma metti woon noonu laa koy attaqué taxaw ne nangam ak nangam tey li Moustapha Diakhaté wax muy loolu. li may génn nii man dama taxaw di justifié wu naan nangam nit ñi danañ xam sama kàddu nag moom. Hmm. percutant na parce que aw ma man. su may kaf ak su may dëggal ak su may politique lépp dëgg la man xaw ma wax fii taxawaat fii naan lii wala laa wala di ko wax di ree maam di wax sama la ba pare. di di di di di ree wala di ñàkk fayda mais li am solo mooy li mu wax dèjà ci ne date bi temps la noonu loolu dëgg. li mu wax ne loolu la ci jublu loolu dëgg li mu wax ne article de article de waxut loolu leneen la wax. d'accord. ku mu euh, neex nga dem vérifier ji. article 2 ci ah. constitution bi am na constitution boo xam ne nag 2001 la woon. ak bi ñu def ak da lay indiwaat mise ma ma kiiwal la koy indilaat bañ aussi ñu euh, confondre entre bu bi nga xam ne dañ ko defar référendum bi donc euh, kilifa gi maa ngi tuub bu baax nag xam naa ni euh, yaa ngi toog di déglu ci le cas de Moustapha Diakhaté ba bu nekkuñu di installé dictature jamono jii ni ko waa APR waxee euh, dictature boo xam ne waxaguñu tur bi d'autant plus que comme ni ko jibi waxee Ousmane Sonko wax na fi lu ko gën a rëy ay nitam ñu ngi fi di wax lu gën a rëy li Moustapha wax te ba tey ñu ngi doxantu ci mbedd yi. ginnaaw bi ma la nuyoo. rafetlu tamit jotaay bi. Mm-hmm. di nuyu muse Ndiaye. di nuy Saa Wolof. Mm-hmm. Euh, di leen wax ne jataay bi dafa bougé gud demagul fenn te ñoom dañoo agité ce qui est important mooy.

Euh, ma bëgg ñu xam ne lu safaane lu safaane rek la tudd te nag réew mi moo toll foo xam ne mérité wul yenn yi Sénégal sénégalais yi dañoo mérité respe mhm. dañoo mérité considération waaye dañoo mérité tamit ku leen yërëm. Mhm. dañoo mérité tamit ku yaxanal seen dund dañoo mérité parcours bi ñu def ci wàllu coono wàllu dégg lu ñaaw loolu jeex mu bokk ci li nga xamante ne nii dafa war a jur rupture. yooyu noonu nga xam ne dafee amoon te nekk yu safaane ñu dàq ko fi jëlee ko fi ndax lu bon lu bon la tudd lu bon nit mënut a aaya aaya aaya aaya bëri bëri bëri pexe ba rafetal ko prenons le cas de Moustapha Diakhaté Moustapha waxoon naa ko fi la répétition est pédagogique ci moom laa njëkk a déggee ci débat. ci mm-hmm. télé. Mm-hmm. àdduna di la seetaan nga ne jullit nga. wala doonoo ko sax boo ko doonul sax loolu du problème sa problème mu bopp lay doon waaye la ëpp ca mbooloo ma ngay waxee fa loola ngay wax quatre-vingt-dix pour cent ak quatre-vingt-quinze pour cent ca ca réew ma nga koy waxee ay loolu la ñu gëm mooy seen pas-pas. Hmm. nga laal seen pas-pas c'est grave ne yonent bi ay waajuram gënuñ samay waajur lu gën a grave loolu ku ko xam na ma ko wax. mu ngi hmm. mel ni l'ancien président la république bu mu demee Charlie Hebdo kan mooy Charlie Hebdo lan la Charlie Hebdo wax ba lam ko jural ci bakkanam mu jural ko ko nga dem taxaw foofu taxawee taxawaayu man maay Charlie Hebdo lu gën a garaaw loolu kon bu ma jëlee Moustapha Diakhaté ma teg ko dama naan kii mag la moo xam ne dañ naan mag mag naa bàyyi si réew waaye ba koy wolof di wax mag mu baax a taxoon waaye mag mu yee fitna la te sénégalais yi mérité yooyu man loolu laa wax. les sénégalais. dañoo sonn sénégalais boo génnee ci mbedd mi lay gis góor ñi jigéen ñi kenn ku nekk yaa ngi dóor sa bopp fu nekk ngir lu la teral ak lu la sagal boo génnee fii nii dem hors de nos frontières da gis sénégalais yi li ñuy daj ngir seen sa sak ak seen teraanga ak seen sutura kon sénégalais yooyu jot na ñu dimbali leen ci ay détails wax leen comment faire nu bu ñuy def ba utiliser suñ pétrole bi mu jariñ ñu nu ñuy def ba suñu or bi nga xam ne dëgg rek lañ ci amoon. sa soxna takk ci soxna mu monsieur Ndiaye takk ci sama soxna takk ci man loolaa gëm. nan la ñuy def ba gaz bi nga xam ne daan nañ ko jëndee 750 xaw ma 1500 yàggul dara régime bi fi jógee yóbbu ko ba 3000 3500 gaz boobu ni ñuy def ba mu delluwaat 1500 man loolaa gëm. naka la ñuy def ba abri provisoire yi nga xam ne boo génnee Dakar tuuti. mbuur gii mbuur commune de Malicounda boo fa duggee la fa nekk ci abri provisoire kenn xamul nu ñuy nu mu toll nan la ñuy def nga xam ne xale yi def naa ci documentaire boo duggee sama page Facebook di ko gis lii ma wax en deux mille deux mille dix neuf ba deux mille vingt ay documentaire mu ngi mu ngi sama la ko jox après boo ci duggee di nga gis documentaire yi ma ci gis da ngay dugg ci biir classe yi naaj bi ñëw ci kaw gone yi ci commune Malicounda booba on avait dit que le maire de Malicounda était le maire au Sénégal à l'époque ma ne non c'est pas le meilleur maire au Sénégal loolu maa ngi koy xeex ba 2023 ndax je ne peux pas concevoir meilleur maire du Sénégal abri provisoire nekk ci sa zone bi toll fi nii bi ma duggee ci école bi xale yi dañu maa song naan dañoo mar man leen lii gone yi ñoo ko wax yéen ko dégg naka la ñuy def ba abri provisoire yooyu jeex ci réew mi man foofu laa nekk nekkuma si di tontu ay détails ak di wax ay détails koo xam ne tey régime bi fi nekkoon ñu ne régime ko xamee ñoo ñoo tax ndax man maa ngi ko depuis ca Lamine te Parcelles Assainies gu njëkk ga mu nekk directeur de campagne Lamine Ba sillonné la commune des Parcelles Assainies Moussa Sy duma leen bañ mel ni tege dege Macky Sall mii ñoom war dañ koo delloo njukkal ndax fi mu leen jëlee ak fi leen andi ndax booba gisoon naa leen xam naa leen ñu mel noonu tey bu fekkoon Macky Sall ñëwaat na du ko soxla sax àndandoo parce que àndandoo day baax àndandoo dalay jariñ àndandoo du la wutal ay noonu boo àndee fukki soppe amul xam borom xam-xam yi bokk nañ d'accord ci ne nga ànd ak benn noon boo xamante ne nii xel ma rëy na bëri nay pexe waaye am na xam-xam moo gën nga ànd ak fukki soppe yoo xam ne xamuñ dara dañ lay tàccu rek te naan la yaa fi ne di la jaay bu Macky Sall ñëwaatoon tey du àndateeg moom ndax bari na fitna ak yu mu ñàkk ak ay ay doy yu ñu ko sanctionné moom ci la bokk Moustapha Diakhaté en fait partie kon loolu du koo xamante ne c'est un exemple ñun ay ndaw lañuy ñuy aspirer kilifa nekk mag ëllëg waaye dama nit dañ koy tabax nit dañ koy fasane nit dañ koy waajal ba ëllëg si biir bu nekkee kilifa ñu xam ne kii kat kilifa la dañ koo waajal ba mu taxawee taxawaay bii mu taxaw waaye bi ñu xëy rek gis la nga am soixante soixante-dix ans apparemment am yenn comportement yi ak yenn doxalin yi ñamu wax ñan la mooy majorité sénégalais yi sénégalais yi ñoo tànn législation bi du du tànnuñ seen bopp dañ dañoo dem préparer ay ay ay yu libre transparent élection yoo xam ne waajtaay wi weesuwul ay soixante soixante treize jours soixante seize jours élection yu dis population bi décidé ñu dem na majorité bi tànn ña leen neex lan moo tax ñu bàyyi ñeneen ñi ñiñ tànn am nañ jàngat waaye ñiñ tànn am nañ jàngat ndax mbir bu xewee ak mbir mu ti doon dañ cee war a am ab taxaw seetlu lan moo waral lii fan lañ jógee fan lañ yegsi fan lañ war a dem. kon ñun bu fekkee ne dañoo toog fii sénégalais yi dañuy seetaan war na ci ñun ñëpp ñu xam ne sénégalais yi dañoo am yaakaar ci ñun ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii dañoo yónni yàkkamte ñun waaye bëgg a taxaw agité ci Moustapha Diakhaté wax joo xamante ne ñëpp a xam ne du wax ju rafet te ku ko bëgg a rafetlu yaa gën a xam ne rafetul rafetul c'est pas respecter les sénégalais et respect ça ne se demande pas ça se mérite. nit ku nekk nag tollul ni mu jëfee ni mu ni mu waxee ni mu jëfee la tollul ni mu waxee ni mu la toll lu mu tàmm wax la régime bi fi jógee nag revenons en arrière un en arrière lan la dumburu Sow waxoon l'ancien député lan la waxoon lu gën a garaaw lool. député la. lan la waxoon Doumbourou Sow. ci hémicycle bi la ko waxee. député la moo tax mu wax lool. on a vu Guy Marius Sagna taxaw ci digg hémicycle bi. dëkk dëgg ne Macky Sall dafay nangam. dëgg dëgg pourtant député la loolu. y' a pas daan tax mu wax. député dafa am immunité. bu boo amee immunité immunité bi daf lay permettre kon immunité mooy nga taxaw am malaanum kiiraay loo xam da lay permettre nga wax lu ñaaw lu ne ci réew mi nga xamante ne nii àdduna nit ñi mérité nañu respect. mais député dafa war a kenn ko ko ci wax président moom. da ngay wax ak moom mais wax mënees na koo woddu wax day rafet xam-xam boo munte am su fekkee ne xam-xam ay teggin lalu ko. yaa mbag mba mbaamuñ sa fi téere yéen a yaa gën a xam ne yow mii di présider émission bi ma janoo ak yow ñu xoolante bët sur bët. ni ma ni ma déggee ñaar ñi ñu wax ko am na noo taxawee woon émission bi mën naa yàqu wala émission bi moom temps bu mu am wala kii am ko du demee noonu waaye kii a été posé. damaa nekk gone maa ngi foon nit maa ngi toog di. Hmm. da nga dégg nga ma. kan moo ko nekk la ak actuellement actuellement qui est le maître du jeu du yow. lan moo tax nga am comportement boobu waroo woon ne rek man man maay kii président émission bi maa war a recadrer nit ñi maa war a nan ak nangam gën a agité ñëpp wala nga ne déedéet nangam ak nangam am comportement boo amee ku ci gis sa bopp jël say bagage dem sa yoon. mais defuloo ko. merci léegi nag nekk député sénégalais yi ba ñuy fal moo tax barki dem moo Ndiaye Ousmane ne dañuy waajal député yi yóbbu leen séminaire wax leen nan mooy député former leen une formation à court terme. loolu lañ soxla nag. loolu la moo tax nag ñu bëggoon rupture looloo tax nag sénégalais yi ne nous voulons une assemblée méritée méritée une assemblée digne de son nom foofu la àdduna bi jëm nous sommes au vingt et unième siècle. d'accord bu ñu dégluwantee njaay li muy wax mën nañoo jariñ saa wolof li muy wax mën nañoo jariñ. Mhm. man li may wax mun na maa jariñ mun naa jariñ ñeneen ñi ñuy déglu waaye bu fekkee ne dañ koo bëgg a def niñ ko bëgg a defee mais du sotti du ko mët kenn ku nekk am nga sa temps de waroon li nga ci am wax ci li nga bëgg. ba fu mu bu mu fa nga xaaraat. Hmm. bu jeex émission bi am na suba. Ah, man loolu laa gëm léegi nag bu fekkee dañoo jël lu ñaaw li fi nekkoon. Hmm. ñu teg ko ci taabal ji. Hmm. mais naka lay defee demee ñan ñoo ko doon def ñu ko doon def jóge wuñ fi ñu fi. waaw nag bu ñu ko defee ci jamono bi ñu ko defee te teguñu leen woon ci yoon te régime bu ñëw war leen a teg ci yoon am na fi mais dañ leen di teg ci yoon mais bu fekkee duñ leen tegee ci yoon rek ñu yuuxu yuuxu yee teel. d'accord yuuxu yi moo teel. te kenn daje ko fi xaaju lu Ousmane dañ man maa la ko wax. mitin la ñu def taqali koo kër Massar Mariama Sagna dem këram fekk fa ay saasaay di ko xaar ñu violé ko rey ko amul enquête amul justice amul dara barke dem boo Ndiaye siège xalifa Sall de source sûre laa lay wax li ma lay wax dama ko dundoo ñi ci njëkk arrêté yóbbu leen enquête di leen di laaj loolu naka la demee ay patriote lañ. nga waaw am ah, léegi jamono boobu kee dañ ko rey fii rey fi kenn instant bi moo am kenn xamul kan moo taal taal mun naa am sama kër la moo tax mun naa am maa ko taal di wut ay alibi wala maa xam pexe yu ma ci teg ñu oo ñeneen ñi nga xamante ne nii yëguñu tënul période boobu mu ngi leen fekk ñuy sol ay carburant ak di coordonné coordonné eh, si station yi oto yi ñu war a sol carburant dem campagne électorale ci tey là-bas kon li may wax xam naa ko est-ce que kon ñaari régime yi benn la du benn kee jigéen la dem ci lim bëgg ak lim gëm fekkee ji wàlli ñibbi këram fekk fay saay saay ñu violé ko c'est un délit yemuñ ci dañ koo rey ba tey jii ñu koy jooy noppee guñu ak ñaatal ak mu nga fi nekk di wax ba déwén ba déwén li fi amoon ñaanuñ yàlla mu amati fi xaaju loolu du fi amaat duñ ko nangu. ñu jël ko Macky Sall nekk fi Souleymane Diol Diop kan mooy kan mooy kan su l'époque de Wade diggante marqué maire de mercredi fu waay nekk da ngay dégg Souleymane Diol Diop il est au saaga na ku ne. ci moom laa déggee ay chefs religieux yeux euh, sàngara yi ñuy naan mu koy nettali ci moom laa déggee wax ju ñaaw bu ne mu wax ko nit ñaa ngi may seetaan ñu ngi may dégg xam nañ ne loolu moo am Macky Sall bi mu yegsee dafa dem seeti ko Canada bi après nu mu ko def ministre des Sénégalais de l'extérieur loolu ama loolu am na fi dañoo xaaju gu ma yegg foofu te duñ fa yegg ndax ñu nit ñi dañoo bëgg lu baax dañu xeeñtu lu baax nous ne voulons pas de règlement de compte waaye nag ku foog ne dëkk bii nii yaa ko moom wala loo amu fi li fi amoon amatu fi ay mag yoo am cinq soixante ans nekk président amu fi ñun suñu ay morom ñoo nekk ci palais bi xam li xew bëgg réew mi kenn gënu leen ko bëgg xëy ñu fal leen dañoo xeex ba yegg si fi ñu yegg si seen xarit dee seen soppe dee ñi seen doom yeeg seen grand frère yi dee si lii ku ci foog ne mën nga wax fii nii lu la ci génne ba boo waxee loolu warta wax doo dem ci kaso soo fi defee loo fi warta def doo ko diggaaleeg nit ñi tiita tromp koo doon. d'accord. nañ jël yëf yi xam ne bari pexe nekk ci dëgg moo ko gën ñu jël pexe yi ñu teg ko fële réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk suñu mënee ñu ànd liggéey ko mooy li gën buñ mënut majorité bi nga xam ne nii ñoom ñoo gagné réew mi à cinquante et pour cent tey ñu am majorité à l'Assemblée nationale ñoom dinañ gouverner au moment où nous parlons am na lu ma dégg ñu ne waa PSPCF rek ñooy gouverner ñaata poste de responsabilité la waa APR toog. plus de trois cent et quelques barki dem avant ñu dem législation c'était quatre cent et quelques postes et de direction yoo xam ne waa APR ñoo fa nekk mais man je me suis su fekkee ne ils sont compétents doomi réew mi lañ dañoo war a liggéey comme man comme keneen a keneen ak keneen loolu laa gëm kon ku ne waa Pastef ñoo gagné ñooy gouverner ñooy liggéey réew mi mais waxuñu lu am au moment où je te parle il y a plus de trois cent et quelques postes gérés par des gens de de de de l'APR de l'ancien régime. fañ nekkoon jógewuñ fa ba tey man mun naa la ci wax ay projet mun naa la ci wax bii ak bii ak bii ak bii diw fa nekkoon moom fa ba tey d'accord baax maam gàtt na nag mais si jur gi la bokk. Hmm. kon yëf yi buñ jël débat bi ñu yóbbu foofu nañ jël débat bi ñu xam ne la weesu woon weesu na. Hmm. dootul amati nag. dootul amati kenn du fi Ousmane Sonko Sonko Sonko lu nag mu ngi am waaye du tax nga nekk Sonko te ku si Sonko Sonko lu di nga dem tuuti nga xam ne doo moom. on laisse le temps faire le temps est le meilleur juge. d'accord euh, def nga ay analyse donc mais mais mais ci euh, analyse yi mu def nag quand boo fekkee ñaar di wax euh, ki nga xam ne moom la ñuy dóor moom lañ tooñ maanaam mënoo koo yemale keneen te li nga fekkee dangaa ngaa fekkee Saa Wolof mu am parole nit di ko ruube boo seedeelee kii li nga ko seedeel ni nga def ba ma déglu la moom bu ko defoon te commencement bi ma interpellé bi ma tontoo dana ma noppil est-ce que continué naa Aliou a ngi nii continué su defoon ne mu def du am gis nga ñam yamale ñaar loolu baaxut loolu tamit njuumte la loo def. d'accord parce que maak moom yamuñu ci nu nga ñu war a traité. désolé. monsieur Ndiaye. Euh, <laughs> ma ñëw ci yow ma ñëw ci yow. ñu xool naka lay def ba ba tëj tomb boobu dugg nag ci assemblée bi. y a xool euh, député yi a nekk ak président assemblée nationale boo amee ay rebondissement par rapport ak propos yi saa wala fii ak. Euh, non en fait euh, euh, man xam nga <clears throat> débat d'idée bañu ma ci benn provocation bañu ma ci benn pic man lii sama mën naa ne lii mooy sama métier je suis un je un professeur lii lañ ma formé xam naa luy contradiction xam naa luy jongante ci wàllu xam-xam. Hmm. awma boobu problème képp koo mënti doon. bu ma jàkkaarloo ak yow dinaa la wax nga dégg te mënul nit mënul wax ba touché ma te yaakaaruma man am intention touché nit non non dañuy débat rek après ku nekk dem kon kii li mu wax li mu wax wax na ko dama koy bàyyi ay propos man duma toog mukk sama nawle toog ma naan ko ñaar ñii ni nga waxee ci kii waxee waroo waxee nit non non non parce que waxam la danga koy respecté soo aussi simple que c'est aussi simple que ça dégguma fenn fu ma taggee de wala daf ma tagg on ko connaît pas dafa wax si digg bi après jarul pour man loolu pic boobu jaru ko parce que boo dugalee si biir waxtaan nga bëgg dugal ay considération yoo xam ne considération yi amul rapport ak sujet bi dafay toujours créer un climat délétère dans le débat te fii je pense que li fiy waxtaanee amu ci lenn loo xam ne dañu ciy fay wala dañu ci jox dërëm. man sama liggéey laa di ko liggéey yow noonu kii noonu kii noonu bëgg Sénégal dong ñu tax a toog fii mais ku nekk di défendre sa point de vue sañ nga ko. man sañ naa ni li Ousmane ko wax moo gën a garaaw li Ousmane li li kii Moussa Diakhaté wax sama liberté la est-ce que loolu nit mun na ma koo nangul wala mu nit mën na ma koo fokkatil on peut pas confisquer mais ma liberté. loolu laa gëm. loolu laa defendre te dama ko argumenté point final ku ci d'accord ça mais ku ci d'accordul j'en assume l'entièreté de tout ce qui est responsabilité j'en lañ l'entière responsabilité. Mm-hmm. am nga ci droit am ci problème. Mm-hmm. maintenant mm-hmm. bu ñu nee assemblée nationale. Euh, mais l'assemblée nationale bañ ka dalee fal ba léegi depuis suñu première assemblée sous Senghor ba ci dernière assemblée quatorzième législature sous Macky Sall l'assemblée nationale n'a jamais été remportée par une opposition musul am ban la. qu'on nous la sorte qu'on nous sorte une assemblée que l'opposition a gagné musul am assemblée parti au moo ko mës a gagné lu ñu suñu combat lan la woon dafa am lu leader am waxoon. muy lan ne toute personne qui vous dit que donner à l'Assemblée nationale peut bloquer le pays vous dit pas la vérité leader am moo ko waxoon. contexte bi mu ko waxee woon. waxaar rek xam nga xam nga xam nga xam nga mon cher contexte mooy lay rek. man bu ma neexee tey ma taxaw fii saaga bu ma génnee nekk contexte bi la woon saaga saaga la rek ñaaw na ba pare. mais député yi taxaw di saaga xaar rek moo frère. député bu naan man Macky Sall laa fi nekkal. non xaar taxaw ne man ma demee assemblée nationale aw ma lu may bëgg aw ma lu may bañ mu Ousmane Sonko lu mu wax loolu ko. dégg nga ko kan moo wax loolu. ah ko wax Bara Ndiaye. non dafa ni Ousmane Sonko député bu ma bëgg mu nekk waaw xaar rek xaar rek gis nga grand. Euh, ce pays dañ ko bokk te ñun li fiy dund c'est des yoo xam ne ñun ñëpp dañ koy observer di ko dund au jour le jour Ousmane Sonko ba mu taxawee ne assemblée nationale Sénégal war na weesu ñu koy jox opposition boobu waxul boppam sax daka cee boole war na weesu ñu koy jox parti au pouvoir teg ci cité ay dëkk ay États-Unis avec le Congrès. France France cité ay Togo et cetera ñëpp d'accord tàccu waa léegi dama lay laaj. lan moo changé ci diggante bi ba ñu war ñu gëmloo ko ni lu mu waxoon valable pour temps day valable parce que ba tey askan bi li wóorul ci moom li ñu jot a gisagum ci régime bi. ci jaay doole. si maa tey taxaw ñëpp di la dégg ministre xaw ma DG xaw ma ministre ak xaw ma loo mënti doom Abbas Fall ñëpp di dégg un ministre xaw ma une ministre une dame taxaw nekk même bu dee yaa ko def yaa ko yaa tey. loolu dans l'histoire politique au Sénégal musuma koo dégg boo amee tam ñu génnee ko ama problème boobu man donc booy booy bu ñuy moraliser politiciens yi di joxe leçon de morale dafay baax bàyyi sa weewu tànk parce que boo amee yow sa biir camp ministre bu wax loolu taxaw ne diw même boo sàccee yaa tey foofu la saboote ak ak ak ak maanaam yaradiku ak ñàkk xam luy république ak république lu muy symboliser parce que nag république du alalu ndeyu kenn du alalu bàyyi kenn moo fa nekk li fa am ñoo ko bokk ak foo mënti féete boo amee ay suspicion de corruption ci sa der am loo xam dañ la ko jiiñ am na loo xam dañ la ko waxal da war a taxaw leeral ko te nit war naa rus taxaw di la défendre si loolu te ba tey justice àtte ko déjà que am na flou bàyyil ba justice àtte ko kooku mooy premier problème bi ñu nar a jëm assemblée nationale nag moom. ñi fay dem c'est des députés mais député bi nawoon fa woon parce que nag attention lan lañu bëggoon am assemblée bi di fa doxal changer li ñu waxoon changer li ñu diggoon man de dama ko man de man dama jàppoon ni man dama jàppoon ni. Mm. élection législative yi. Mm. si bu dee Ousmane Sonko nitu dëgg la. Mm. ñi ma àndal doon nitu dëgg. bu ne damay nekk tëdd liste assemblée sax gars ko dañ naan ko non grand bul dem. parce que doomu aadama amul lu dul kàddoom nit boo demee ba amatoo kàddu dama lay laaj lan moo la dese boo demee ba sa kàddu oyof ba nga xam ne dëkk bi koo wax mun la Ousmane Sonko bu waxee bul ko déglu parce que li mu lay wax contexte ba la la koy waxee bu ko weesoo weesu na ko mooy propos yi ma la rappelé léegi mais loolu ku mu neex nga layal ko ku mu neex nga ne li koo wax amul benn gravité waaye ñun de dañ jàpp ni li mu wax il a yi à sa dafa doon naxaate da doon manipuler sénégalais yi. déedéet waaye yow da doon manipuler parce que manipulation moo taxoon mu gëm loolu sénégalais yi ne opposition moo war a yor assemblée nationale. tey mu taxaw ne opposition warul yor assemblée nationale dañuy bloqué réew. mais opposition bi ñemewoon bu ñu nekkee majorité avion du naaw salaire kenn du ko fayeeku. léegi ma wax la benn affaire yooyu c'est grave. ma wax la gis nga en matière d'opposition man la jibi aw ma benn leçon bu ma waa Pastef di jox ci wàllu opposition parce que nii li ñu def ci opposition ñaanu ko yàlla man. ñii dañ doon bloqué réew mi xaar rek ñii li def ci opposition. ma xam nga loolu wax la daañu bloqué lañ xam nga wax la. mais ñii li ma déggul ma rek li li ñu def ci opposition man ñaanu ma ko yàlla man liñ fi wax liñ fi saaga. liñ fi traité ay gordu yu bon. ba ñëw pouvoir seen ay liveur. Hmm. ñoom ñoom ñoom Tunkara taxaw ñëpp di la dégg nga ne samay wax tas na ay sëy ñëpp di ko dégg Mollah gën aw ne ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey sax jékki-jékki na nañu ne ñoom bàyyi nañu parce que dañu am déception ci affaire bi boobu forme d'opposition nga xam ne tu ne respectes pas la république tu ne respectes pas les institutions tu ne respectes pas la magistrature amul kenn koo xam ne tekk nga si réew mi di la wax nga def yegg na si ba ne booy yi bu leen déglu kenn. Pape taxaw na fii ne képp ku leen di a calmer wala di leen wax bu leen déglu te kenn bu leen déglu sëriñ ko yàlla dans ce parce que ils ont subi beaucoup tax n'a pas subi une injustice à son nom dañ ko dàq PDS jiiñ ko. jiiñ non xaaral police centrale loolu am na fi barki Demba Ndiaye jàpp nga Bougane. tëj ko euh, fële ta xaw ma Tamba xaw ma Kédougou téye ko si si prison bi. refus d'obtempérer waa xaar rek ma ñëw dama ne ma yi ñu waxoon ne refus d'obtempérer ñoo taxaw ne amul refus d'obtempérer arrêté nag mon frère nag yaa ngi commencé nag dugg ci beneen registre. nekk na ci beneen registre non mon ci beneen registre. dama lay relancer juste non non grand. non dama lay relancer nag juste grand. grand grand ce que la presse nous a dit dans le du procès de Bougane ko dégg. les journalistes les les gendarmes yi nekkoon foofu ñoom ñoo déchargé Bougane ne li ñuy wax refus de tempérer amu fa loolu ñëpp ko dégg. d'accord je suis désolé. kon bul dugg ci manipulation. yamal rek si animé débat. non man non donc gis nga ñii. muy pas gis nga passé waaye xaar rek xaar rek wax la ñun assemblée bii ñuy xaar. non ça va la pire des assemblées nationales bu fiy jaar. parce que benn kaay wax la benn affaire profil yi dara baaxu fa. si lu si ëpp. Hmm? des yi nga xam ni. il n'émane d'aucun secteur sérieux ay ku mel na Cheikh Baara Ndiaye taxaw wax fi li mu fi wax ku mel na Cheikh Thioro barki Demba Ndiaye ne ku bañ soo ko sa ndey liggéeyul ñu koy dégg ba tey dégguma ko ne gis nga grand nit na xool tëraayu bàmmeelam buy wax man bañu ma ku clash opposition bi ak ku leen dindil ku leen ku leen ku leen ku leen teg tuuma bu ñu defee mais attention dafa am loo xam ni nag il faut que ñu bàyyi ko ci réew mi. mooy cette cette set cette indignation bi nga xam ni mais c'est à géométrie variable tey boo àndee kii ne ne ne li muy def nii baaxul suba bu ñëwee nekk dans les nga ne ko noonu li nga fi nga teg sa tànk noonu la ci même nit ki bu bu yàggee loolu day am nag lu muy niroolu tey ku taxaw di di di ñaawlu affaire affaire affaire affaire Moustapha Diakhaté nit taxaw 18 millions de sénégale nga ne képp ku bëggul Ousmane ko sa ndey liggéeyul Sénégal yëpp di ko dégg dégg ñu woo ko actuellement ñan la ñuy woo police ak gendarmerie ak ak DIC da dégg benn waa Pastef bu ñu convoqué da nga ko dégg taxawoo fii Ousmane Sonko ne ministre bi envoyé ma message sama téléphone envoyé ma vidéo ne ma kii sa militant la wax na lii loolu mooy la ma jàpp wala bu ma jàpp loolu la. loolu déggoo ko fi. ko fi. waaw wax na mais voilà mu ne ko ah, defal sa liggéey. defal sa liggéey waaw léegi loolu noonu defal sa liggéey boobu noonu lan moo tax defaluñ ko defaluñ ko defaluñ ko Moustapha Diakhaté lan moo tax laaj ñu ko permission lan moo tax ba ñuy jàpp ba Bah Diakhaté laaj ñu permission ah lan moo tax ba ñuy jàpp euh, Ahmed Suzanne Camara laaj ñu permission kon ñoom bu dee passif la dañuy jël permission dalal ba mu dal gérer affaire bi te boo xefee ñu ne waaye waa ji wérul il n'est pas sain d'esprit automatiquement da am excuse au plan judiciaire kenn mënatu la condamner ñu bàyyi la nga ñibbi sa kër. mais bu dee opposition bi la dara jotu leen dañoo réew kii taxaw naan non li fi amoon doot fi amati mais li fi amoon yéen a ko def est que xam nga loolu li fi amoon yéen a ko def yéen a doon taal yéen a doon xeex yéen a doon saaga nit ñi est yow taxaw nga tey ne waa Pastef la ngeen doon def du dëgg est-ce que taxaw nga ko nit da ngay ak dëgg di dox si dëgg tey wax dëgg far bu mu la tax wax lu amul. man les propos de Moustapha Diakhaté man personnellement rafetlu ma ko moo wax la ko nag tey mais tey heureusement mooy li Marguerite de Yousnar doon wax rek Marguerite Yousnar lu doon wax rek. boobu tam mën ngaa vérifier. Mhm. dafa ne. Mhm. le masque à la longue devient visage. tey les masques sont tombés. tey xam nañu kan mooy démocrate kan moo bëgg réew mi. Mhm. kan moo violent ak kan moo gëm ni république bi ay principe la dama ko war doxee tey mais mais mais xanaa mais xanaa tey. tey la assemblée nationale nekk nekk nekk lu baax barki démb Ndiaye dañ taxaw ne assemblée nationale bi dara baaxu fi ces gens là sont aux ordres de Macky Sall waaw d' accord léegi bi aux ordres de kan la ne kan moo dirigé liste bi. Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo dirigé liste bi. Ah. ay député yooyu député ñan lañu député peuple bi lañu. Ah. sachant que ni déglu ma rek sachant que ni ñoom seen bopp député taxaw na ne ñun amuñu lu ñuy bëgg amuñu lu ñuy bañ bu ma fa Ousmane Sonko yóbboo li mu bëgg laa koy defal loolu leeru où est la sans changement booy xaarew ci assemblée lu dul jaay doole jàllale lu leen neex mais mais mais mais mais mais toroxal nit ñi yuuxoo nit ñi loolu doo nga fa naraam doo fa am benn projet bu sérieux bu ñu teg pour le Sénégal. parce que ñii non parce que xamoon tax ku am projet da koy wane. ñii ça fait huit mois qu'ils sont aux commandes de ce pays teguñu brique amul régime bu jaar Sénégal. di laaj assemblée te tegoo nag ne serait-ce benn embryon de projet ne kaay leen voté leen ma ma yeggale lii ma commencé nii ñii rek ñoo mu sax voté leen ma ci dara. vision Sénégal 2050. waaw yow vision boo xam ne yow. huit pôles kaay ma jox la ci benn élément bi ma gën a métti ci vision bi vision Sénégal 2050 bi boo xam ni dafa sax ridicule di ko wax sax dafa dafay wàññi daraja Sénégal. xam nga mooy la hmm. bind sa vision Sénégal ne Sénégal day am autonomie énergétique en 2050 autonomie énergétique. te dañuy dem ba 2050 ñuy jaay courant xam nga courant kañ lañ ko jaay au Sénégal duggal internet 2017 lañ ko jaay Mali 2017 Sénégal jaay na courant Mali te fii may waxante ak yow dakkul duggal sa jëlal sa téléphone xam nga li ma la kon loolu manque d'ambition la du projet wu dara li fi nekk mooy ay nit yoo xam ni dañu bëggoon ñëw au pouvoir sans y mettre les formes sans la mettre form les formes jëluñu benn précaution. naa egg si pouvoir nu ma eggsee baax na utiliser ay méthodes yoo xam ne man nee naa la dara jaraluma ko États-Unis sax laa wax nii nekk jiite ko jaraluma opposition bi waa passé dans dans l' opposition dara jaraluma loolu. d' accord te nag te nag ma xamal la leen. fa ñu jëmee réew mi baaxul. parce que si fayantoo la ñu nekk. ñi dañ jot nguur pour fayu kii boo déggee ni mu waxee xam ne kii moom ku ko joxoon ministère tey jox ko armée police mu tiire si kaw nit ñi kii parce nekk pouvoir di wax comme ku nekk opposition si parce que laa gis. kon majorité bi pouvoir non mon frère. ki xam nga xam nga benn benn borom xam-xam bu mag dafa dafa dafa wax dafa wax ak àdduna ba ni muy faatoo kenn dégg ko. muy kan. Euh, boo demee France dafa nekk koo xam ni c'est un c'est gars boo xam ni dafa dafa dafa def ay recherches yu poussées ci affaire assemblée nationale. damay mhm. dégg muy mhm. toog ville. boo duggee nga xool. dafa la wax lan mooy réew ak nu ñu koy joxee ak lan mooy démocratie dëgg-dëgg mu ne démocratie du rek dem si ëllëg di bureau de vote huit heures fal nit teg ko mu am majorité mu ne loolu du démocratie. Mhm. mu ne nit ki boo ko falee ba pare moom toog ville mooy wax de mu ne li nga ko falee day nekk doole boo koy jox doole boobu da nga koy contrôler ni ngay contrôler doole bi mooy boo bàyyee nit ki yoon doole yëpp day nekk majorité buy écraser minorité mooy tey menaces yi ngay dégg. da nga wax fi lii ba ñii bu ñu leen jàppee ñii kenn doot fi naan yéen ay kan ba kenn du naan te yéen ngeen doon ŋaang. d'accord yéen non c'est-à-dire que toog ville yokk si. Hmm. ne boo bëggee réguler. Hmm. cette force là ba du mën a noot askan bi. Hmm. il a été très clair li ma la wax ni dugal nga xool dafa ne pour nga bañ a noot sa askan nañu jël parlement bi teg ko ci loxo opposition teg ko ci loxo peuple bi opposition mën a noyyi mën a waxal askanam kenn du jël tous les pouvoirs di ko mettre entre les mains surtout nag pouvoir bu mel ne pouvoir Ousmane Sonko ak waa Pastef nga xam ne fi mu toll nii ñoom seen xel li ci nekk mooy li fi nekkoon dama leen di écraser ragal mais mais dama leen di terrasser dama leen di terrasser si si loolu lañ nekk. d'accord dégg nga temps est-ce que chroniqueur bu toog doon xuloo ak benn waa ju nekk APR je m'en souviens très bien bu ma jumalee mu taxaw nekk clairement ñi leen war a écraser waa ji tàkk ci plateau bi le mot écraser. nga xam ni seen ay réflexes seen ay réflexes c'est des réflexes de violence. ok kon ñii mais waaye ñii dañoo mën sax gérer quartier bay gérer dëkk. donc yow jàpp nga ni daal majorité bi euh, jarut kenn di ci am yaakaar. kenn amu waaw dégg nga di ko waxaat rek ne article 2 ñu loolu. ci ah. problème mu capital Sénégal comme léegi mi ngi may renvoyer ci. article 3 la Marguerite article 3 la may naa la ko article 3 <laughs> la dama juumoon. ba tey article ba waxut loolu. ba tey waxut loolu. liiral te plaît liiral dama la ko ñaan liiral premier paragraphe nga jaar. article 3 problème mu souveraineté nationale souveraineté nationale may ma tuuti. léegi léegi léegi xoolal. xoolal non nag Aliou. Aliou Aliou. article 3 du ma dugg ma ci juum. mais texte yi Aliou gis nga texte constitution yi ma lay liiral. gis nga texte de loi yi ma lay liiral. Aliou xoolal ma ma ah, gis nga ah, ah, Aliou dama bëgg xamal. vraiment vraiment Aliou Aliou Aliou Aliou dama koy cité de mémoire. Aliou yow loolu doo ko def ba àdduna tukki. Aliou léegi jox naa la plus de temps àdduna du yàgg ba nga cité constitution de mémoire. vraiment vraiment Aliou bàyyi ko moom mu am. non mais xam nga ni débat bi dépassé woon nañ ko mu tëgul wax ngay way article 2 article 3 mais man article 3 ñaanaat la ko bàyyi rek ñu continuer quand même allez allez man nag cest à am dëgg ba finalement <laughs> jëlal d'accord c'est bon d'accord on se naar ak dog wii la yooyu boo ci tëlee saawlo bu la ci toog ndax man kocc laay lijjanteeg Amary Ngoné Sabel waaw kon bàyyi ma man li ma jàng man tam c'est tout. loolu kay bu concerné constitution nga taxaw ne article bi te constitution bi concerné ma même bu dee dañ ko bind ci français dama lay xamal ne la yow loolu da ngay jël lépp man xam nga da ngaa nekk professeur di jàngaleel ci li nga wax. wala enseignant loolu moo am. wala professeur la de rang A. Hmm. voilà. ok jërëjëf. voilà man saa wolof. Hmm. dew ma sax toog ci banque français wolof laa jàng ak tuuti arab du rëgg. waaye Sénégal gi ma ñor fii lu fi nit wax moom fii laa lay xaar man nga ma kal ci marguerite de Rousna dog wil loolu amul benn projet du ma ko du ma ko vérifier mais li concerne Sénégal moom moom ko sànq ba léegi loo wax daal dugal internet naa nga loolu jaru ko parce que man li li nekk fii laa wax. wóolu sama bopp rek. Hmm. Hmm. Hmm. xam nga nag. wóolu sama bopp rek léegi léegi léegi. man su ma ko toppee mu am débat. nit ku bëgg a àtte taxaw ne. pourtant ki leen di jiite. mi ngi taxaw ànd ak dal nangam nangam te bàyyiwul xel ne kii wax ñu di ko dagg moo am parole. d'accord lii mooy son problème sa parole donc. gis dafa mel ni boo nekkee ñaari seex sax sa ndey ak sa jur leen seex bi daa xajooy moom la ñuy gën a tam-tam. waaw allez ki ne fàtt dañ ko fay bàyyi. yaa amee parole ko jox mu kii moo tax. parfois kenn warul laa dagg say droit la soo demee fu nit ñi di matte. ba mu man dagg la wax équili du équilibré. non du la dagg maanaam l'équilibrisme. du la du la daggaat kooku. ma nga équilibré ma dana ko may dana ko def parce que bi muy wax kenn ko. voilà non man man man fi may waxee. waaw allez dafa bari baat yi mu wax loo xam ne li mu wax du dëgg dafa fekk ay nit yu mu wax ba pare mu yàq seeni wax waxe ko neneen mën naa koo ñëw ci kaawu Cheikh Bara Ndiaye te pourtant taxaw na fi ne waa Pastef duñ ko dénoncé den tooguma fi dénoncé may mën a ah, jéey waaw yow bokk nga ci ñi ko njëkk tooguma fi dénoncé Abbas Fall waaw ah, ñaawul nga tooguma fi dénoncé même Bara Ndiaye même bu dee ni mu ko waxee sax du noonu te pourtant mi ngi ne waa Pastef pourtant waa Pastef la man dafa mu ma gëm dafa am lu Abdoulaye Wade waxoon ci les libéraux ne mën nañ fi def ba deux mille cinquante loolu mujjul mën a nekk maanaam PDS sax la doon wax ci benn coow bu ñu amoon Mbàkke euh, danañ ko nangam mu wax leen loolu nit ñi sax doxal contexte bi indi ko ci leneen daal ne ba naan moo nangam ma nangam ba ci bindi livre Ousmane Sonko nee na dégg naa ñuy wax naan fii ba cinquante ans mën naa nekk mais pour ko loolu mën a nekk faaw Pastef di critiquer Pastef Ousmane a ko wax. Mhm. yàggul ci ay meeting. Mhm. kon ma ma waxal la ci tooguma fii critiquer docteur Diallo li mu wax. tooguma fii critiquer Azoura Fall ba démb ak tey yaakaar naa li ci gën a viral ay nit di ci wax mu ngi nii pour moom li muy wax naan waa waa Pastef parce que tamit gis nga réew mi dafa yomb trop nit ñi dañuy jékki-jékki rek di wax nangam ñoom ñi ngi nii boo waxee nangam duñ ko critiquer wala duñ nangam da xam nga ñun amuñ problème bi ñenn ñi am te pourtant Azoura Fall moo la gën a xam ne Saa Wolof amul problème ak moom wala comme ñi nga xamee noonu la ñuy wax koy layal muy avocat bi di maître El Hadji Diouf di maître Amadou Sall tax muy muy muy muy li ñuy wax porte presse wala dem ci micro bi ci mu taanu nangamu al parce que naturel mais bu ma dexoon fii ne pain waxi rewoon ne la mais loolu si personnel loolu damay ñaan Barthélemy Diaz wala Jean-Paul Diaz mu dem porter plainte Azoura Fall parce que réew danga ko jàpp mm-hmm. xam nga tey tamit dafa am loo xam ne fardu kifaaya dafa am loo xam ne xam nga nañu on est des sénégalais que ki nekk Pastef jàpp ne moom rek moo gën mais leen nag laay wax man moment bi mille 2021 di jot wala jamono yooyu ñuy persécuter Ousmane Sonko bépp sénégalais bu am jom révité de borom xel di xalaat waxuma nag ku yaakaar ne mag Sall moo nekk ci dëgg xam nga kooku dafa yaakaar ba nëga ni même bu dee dafa trompé loolu la ko xelam jox loolu la wax mais am na ci ñoo xam ne xam nañu xel ne lii moo fi am boo ko seetaanee doo score Cheikh lan la wax ñiy bañ Ousmane Sonko ñett lañ pour nga bañ Ousmane Sonko faaw nga mel nii mel nii wax loolu soit koo xam ne dangaa mel nangam wax nangam wala ku ndeyam liggéeyut yeggul foofu taxawul ne yow mii yow mii diw bañ ki sa ndey liggéeyut xam nga nit ñi bu ñu waxee ay kàddu yamale ko fi ñu ko yamale mu nekk pit da nga koy jël teg Cheikh Bara Ndiaye bu taxawee ne député bi Ousmane Sonko bëgg ma doon laay doon bokkut ak li ma Ousmane Sonko comme li maa la waxoon mais teewul malgré loolu dama ne ko Cheikh Bara li nga wax nit mën na koo liiree que yaag maalaw sow yéen yam te bokk naa ci bi ma ko waxee mu wax ma ne ma soo jegee nit genn gi kii lu mel noonu mën nga ko woo ma ne ko non bi nga ko njëkkee wax Sénégal dama laa woo quatre fois wala sa téléphone bi nga ko demaatee ci place tel waxaat ko ci laa ci doog a wax parce que ñun dafa am projet bu ñu teg li ngay wax nit mën na cee sukkandiku ba du ñu voteel kon waroo dugal bii contre son camp la ciy bàyyi kon fii kenn bàyyiwul nit ci bàyyi gis nga li am muy liberté bi am ci parti Pastef muy nit ñi li ñu xalaat président de la république sax jël na décision ñu ci ànd génn wax ne ànduñ ci ñenn rek laa ci blâmer mooy ñi nga xam ne en tant que DG wax ko loolu laa ci wax mais ñi ko wax ñëpp même président Diomaye tamit noonu la ko comprendre fii ñun amuñu complexe yi nit ñi amoon taxaw fii naan affaire ay euh, républicain wala nangam naan beneen bi muy waxalaat nga Ousmane Sonko lu du dëgg waxal Ousmane Diagne lu du dëgg parce que li nga ko waxee du noonu. dangay trair trahir yow da ngay jël wax sa wax yow li nga bëggoon nit ki wax pour nga mën koo dal nga abal ko koo pare bëgg a tontu ci côté am kii daf ma laaj ne ma ma jàpp wala ma ba wala nangam du dëgg te xam nga ne du dëgg te pourtant yaa ngi koy wax lu tax nga koy wax lu tax ngay wax loo xam ne xam nga ne du dëgg li ngay wax parce que bëgg a wax rek nii xam nga ne daf ne ko kii ci sa njaboot kii dañ na ma ci sa njaboot la fu la bokk te dafa manqué de respect wala dafa nangam ay magistrat man mu daal cay teg daal ne ma ne ko defal sa liggéey xam nga Ousmane jaañ koo xam ne traversé na régime yii yëpp kenn mosu koo defloo mu def lu mu warut def wala lu mu jàpp ne du yoon Ousmane Sonko ñëw li ñuy wax élégance républicain wala xool yow ñi la tabb ba juste ndax moo ña fi nekkoon ñoo yem wala déet man nga jàppe acte Ousmane Diagne boobu man nga ko jàppee foofu parce que loolu yaakaar naa bokk na ci décision yi mu njëkk a jël. maanaam Aliou ñëw woo ma ci kër gi daan ma gis fenn foo xam ne man ñëpp xam nañ ne nekk sa plateau mënul tax nga def loo ma li nga bëgg a def lu ma d'accord damay taxaw wax la ko fii même bi ñuy taxawee fi sànq mu des déséquilibre am comme ni muy wax te loolu moo ko may moom ngeen di gën a jox euh, temps foog nga jéem a équilibré man moo tax débat boo xam ne nekkuñu égal duma ci bëgg a participer te pourtant maa ngi ko wax keneen mënoon naa ñëw tey ma bàyyi fii parce que wax nañ fi nangam na keneen woo ma. gis na ma nangam est ce que kooku bu ma woowee te gisoon na ma wax li ma wax fii daaw ma nangu nag ba mu tax ma kon kooku xelam dana xalaat ne ah saa wolof mii duma ko def loo nangam ba mu def ko parce que li ma wax rek su fekkoon na président Diomaye wala premier ministre Sonko dañoo bëggoon na jëlu yat di ko xeexe jël seen doole di dóor opposition du ci procureur Ousmane Diagne la ñuy compter di ko def ministre de la justice ba pare di mën a def yooyu su loolu la ñu bëgg du ci procureur Ibrahima Ndoye mi nga xam ne moo gën a wowle ci lu mu gëm du ci ñooñu ngay ngay compter kon loo fi bàyyi da ngay def comme ni Macky Sall defoon bëgg commissaire boo xam ne da nga koy teg sûreté sûreté urbain mu lay convoquer opposant yi ci nu ko neexee mais loolu kan moo ci gën a jekk ku dul koo fekk ci pharmacie ku fekk pharmacie ne waa ji jaay ma garab mu ne ko garab gi du médicament bu ñu war a jaay sans ordonnance nga xëqante fa ak moom woo say alkaati ñu yóbbu ko ci doole kooku caméra yëpp wane ko jax rek ñëpp gis ni kii comportement boobu la yor groupe bi ma nekkoon bi ñu ko waxee muy defar suñu réew ma ne leen Macky Sall lii la ku mel nii lay wër bëggul ku baax ñu mel nii lay bëgg pour bu ëllëgee comme toog nga fen di def dara pour sa propre intérêt su la ci boolee di la fay weer ba pare wala mën laa jox yeneen privilège ba pare di la ko defee lay gën léegi ngeen gis mu mu mu mu ñu defal ko promotion foofu lañ ko jëlee. géejawaay xaw ma fan wala xaw ma parcelle yóbbu ko sécurité urbain ki may wax mooy commissaire Bara Sankara Sankara kon bu ñuy bëggoon ñu mel noonu lañ fi maintenir bàyyi leen fi wala ñi nga xam ne nangam ak nangam loolu lañ fi bàyyi kon du ñu taxaw léegi Ousmane Diagne bu yegg see wax loolu la ñuy wax yaakaar naa yéen jànkatu euh, français yi <laughs> mettre les nit devant les faits accomplis du noonu lañ koy waxee maanaam tey Ousmane Sonko jàpp nañu ne waa jooju jege na ko wala nangam def na nangam nga daal ne ko ah kii sa njaboot la bokk nangam ne tekk di ko déglu ba xam daf naan la bàyyi ko su ko newoon bàyyi ko bu boobaa nga mën cee déggee Ousmane Diagne xam ne kon moom la ko ñeneen ñi doon def loo ba mu tàggale la nag moom kon jarul muy soreek ñi gis nga wax da ngay bañ a tooñ booy dinaw sa dara dangay ngay bañ a def pire que ki nga koy defal parce que yow li ngay ŋàññee Ousmane ko taxaw nga sosal te waxal nit dëkk baaxul bala ngaa dee da ko loyo loolu baaxul beneen bi muy lu ci nekk ci contexte am wala nangam mënuñu wax nit te waxuñ contexte non faaw ñu évoquer jamono yi loolu bu doon loolu la yaakaar naa jullit nga yonent yàlla Mamadou bi waxoon nit ñi que dañuy dem Màkka ren dañuy aji bi ñuy dem am lu ko changé ci contexte bi mu taxaw wax leen ne daf ko changé jullit ñi taxaw ne rëm la fali que mu salamata xaw ne ko ñii yow rek lañ gëm yaa leen waxoon lii mu changé mais pour ñu topp la mu ne ah, mu ne ko subbil sa yére yi armal solaat sa yére yi nga war a ñibbee boo leen kii danañ effectivement bi ko defee ñëpp lañ koo topp moom rek lañ gëm pour yaa ngi xool li nga xam ne maanaam muy situation ni mën a changé ñun suñu ñëwee jox Macky Sall 2012 yaakaar naa juillet 2012 euh, lañ lañ lañ lañ lañ voté mu toog ci juillet ba même 2012 bi. ci la organiser législative man moo doon suma première fois bu ma voté li may bëgg bëgg Wade Wade rek laa bëgg mosuma ko voté présidentiel en tant président de la république mosuma ko voté bi mu daanoo ba pare ci nu gars yi doon def ci laa doog dem votéli ko muy première législative mooy première vote Oustaz Wolof ci atam man président benn ñaar laa ci mas a voté buy Ousmane Sonko 2019 ak euh, président Diomaye présidentiel boobu. élection yooyu bi ñu ko ko joxee muy douzième législature bi ak na mu ko doxale ak la mu def ci élection locale 2014 ak la mu def ci référendum 2016 référendum Sidy Lamine moo ci doon wax bi yeneen ne wii wooy wii da ngeen na wooy mais du Ousmane Sonko bu ci wax comme noonu bi ñëw ba 2017 la mu ci defaat def ak la ca Ousmane Sonko def loolu bi ñu yegsee mooy jox nga ko benn 2017 joxaat nga ko ko 2000 jox nga ko 2012 jox ko 2017 lan la def fooyee ko ay nit taxaw di la wax leneen mu taxaw ne ku leen wax ne te loolu euh, kii wax nu mu tuddati Ousmane Sonko ku leen wax ne jox opposition majorité mën naa bloquer ensemble euh, waxul dëgg ak yu demee noonu man damay jàkk d'accord fi dit ki waxee bien sûr opposition yi ñu jox nii opposition républicain ku ko jox ensemble man pour man damaa jàpp ne réew mi daa war a gën a dox sax que boo joxee pouvoir lépp man loolu laa gëm léegi nag lan moo ko dindi lan moo tax sénégalais yi yow bàyyi woo xel loolu te pourtant loo mënoon a bàyyi yow ñu ngi lay dégg gis nga li ngay wax nii xam kañ la doon gën a am sens mooy avant euh, dimanche bi weesu. wax naa ko ba pare. maanaam dimanche bi bële beneen dimanche bi. wax naa ko mooy avant waa doon dama ne. ca la doon gën a amee sens. jour mu wax ko. waaw non non même chaque jour dama ne bi mu jàllee ba sénégalais yi jox ko ba pare. non dama ko wax ba pare avant muy jàll. ba léegi yaa ngi may dagg. non dama lay wax. waaw dama wax ne booba la am. dama ci def vidéo. waaw non man d' d' accord naa li nga wax. dama ne foofu la doon gën a amee sens. wax ko lu que la. Hmm. ba voteel nañ ñii. waaw xam nga yow nag man la fekk nga nekk professeur jaaxal na ma yow. Ah nan ngay jëlee xam-xam di ko jox ay élèves. Hmm. parce que yow amoo capacité d'écoute ah yow nit ñi di wax sax li ngay dégg leneen ngay dégg. Ah, te nit ki ñu lay fekk si amaana sax ci li ngay li ngay wax. léegi ma laaj la. non non bul ma laaj. man am nga xam-xam boo pële professeur bi. man waaw ban xam-xam la. ah maa la gën a dégg wolof. maa la gën a xam suñu mbattit maa la gën a xam suñu xayte. waaw ah waaw loolu nga jàpp. waaw yow gaaw nga xeeb nit. luy mbattit gaaw nga xeeb nit luy mbattit ci boppam. mbattit mooy lan. mooy lan xam nga ko. mooy lan. yow da nga jàpp ni àgg nga ci xam-xam yi nii. ba pare moom laa lay laaj. sëriñ nga. waaw kan man waaw. as ndongo la. ok d'accord waaye foofu de kon nag yemal ci ndongo. waa déet mais mais yow nee nga xam na ko. léegi mun na am ci nga jàkkaar loolu doon sëriñ. kon yemal ci ndongo léegi baat bi kay xam a moytu. yéen ñi xaw jàng ay arab yi des fois xam nga ngeen war a moytu. Hmm. da ngeen am benn genre gis-gis bu ngeen di gisee nit ku jàng école. da ngeen hmm. am tuuti problème boobu dafa bëri si yéen du ñëpp nag am na suñu ouvert d'esprit. Hmm. mais yow da bokk bokk ñu jàng arab. ñi nga xam ne vous avez l'esprit fermé tu es étroit en terme d'esprit xam nga tam wax la ko. Mhm. da nga am étroitesse d'esprit. Mhm. tey yéen yow yaay genre yoo xam boo déggee ni jàng na tubaab. loolu yow nga xam a a a a xa da nga te gis nga xam mhm. ma jàllale. très bien. dafa moom recadré ni xoolal wuy ma ñeew xoolal sa xam-xam bi ngay bàkkoo nawloo ma ko ñeewu ma ko. d'accord jërëjëf. très bien. waaw léegi xam nga nag. Euh, mu xam kan moo fi. Hmm. Euh, xeeb kan yow yaa fi wax ne. professeur hmm. université nga. indi say mbir. bëgg mu leer rek teg nga wax bi ngay wax naan nangam ak nangam ma bàyyee la li nga jàng ne la man tuuti arab laa jàng. man tuuti français non non déedéet non nag sëñ bi nag. <laughs> waaw ba tey nag li nga doon bañ. ma def la ko wax dëgg yàlla ba tey ma am kàddu. non parce que foo analyser attaqué ko. waaw ah, mais mais yaa yow li ngay jàngale bul dugg ci domaine yooyu. ah léegi bu ñu personnalisé. on peut tous être désagréable mon cher. Ah? Ah? a personnalisé. voilà kon débaawal moo gën. voilà allez man xam nga lu may débattre. Hmm? day yomb. nit toog fii wax ak ku fi nekkut man ki fi nekk laa dàq waxal ki jàpp ne moom li mu am naw na ko ba taxaw di wax andi ko li ñu ko tegal fii daan nangam ak nangam taxaw waxam nga ne ma loo loo yow man maa xam-xam ak yooyu ne ma yow loo xam. ma ne la maa la gën a dégg wolof. ok est-ce que dama maa la gën a dégg arab. wolof boobu la nga ma wax. laan la ma nawloo ma sa wolof yow. parce que feeñul sa jikko joroo jikko wolof yi. bon d'accord allez-y pour ñu. bañ a affaire yi léegi. ci foofu. yaakaar naa man xeebaluma kenn xam-xamam moom moo ñëw wax. Mhm. lii la man ak laa ak laa. ba pare problème mu déglu nit ki sax. parce que yaakaar naa li may wax nii sax am na ci loo xam ne xaw naa fekk si ci li mu wax. moo tax ma ne ko jaaxal na ma le fait ngay kuy joxe xam-xam nga war a doon kuy sayee jariñ. ba noppi te yow amoo capacité dég déglu. d'accord nangam nangam. d'accord xam nga man buy wax maa ngi taxaw di ko déglu bi mu fi waxee benn yoon te dafa wax mel ni lu ma laaj. d'accord ma kii ko mu bëggu ko. ma bàyyi ko. boobu léegi yaakaar naa saa yuy wax maa ngi noppi. d'accord voilà. léegi ci noonu li tax ma koy wax loolu mooy Ousmane Sonko bi muy wax loolu. Mhm. dafa am lu ko dindi. waxam Ousmane Sonko loolu la gëm. waaye dem na ba mu yàgg jamono wan ko ne ko comme ni jamono wane yonent bi ci bi ñu yeggee. Euh, situation bi sallallahu alayhi wa sans effet. mu doxalee neneen. laa Ousmane Sonko ñëw na ba benn euh, ñoom ñu gañe yaakaar naa Madère. Abdou mbaw taxaw nañ fii ñoom waa Benno Bokk Yaakaar dëddu li ñuy wax DOB dop muy débat d'orientation budgétaire layee ko parce que ñoo Ousmane Sonko da leen a wax lii wala laa est loolu war nañ ko dëddu te réew mi war a dox kooku wan na réew mi ne ko man am naa yéenay bloqué loolu benn la beneen bi nga ne dee demee ma tas. Euh, gouvernement bi kooku lan la wane ba tey wanaat na peuple bi ne kii lii mooy yéeneem alors que 2022 lan la ñuy wane Ousmane Sonko bi muy wax loolu xam nga lan la wax yegg na ci sax ne député yi même njëg yi ñuy wax mën nañ koo wàññi wax na dëgg fa lañ koy voté budget euh, député mooy ki nga xam ne tey buñ la indilee nga ne li nga def fii ci énergie bi kat gis naa ne wala li nga voteel ministère sàngam ëpp na def ko ci bii pour nangam ak nangam am sinon du ma ko voté Barthélémy Dias laa fee en deux mooy ci onzième législature douzième législature yaakaar naa su ma juumee budget ñëw mu ne fekk defuñ ci lii nangam ak nangam du ma ko voté Bart ci noonu loolu Ousmane waxoon tey yow avant ñuy dem ci élection yi am na yow ñi war a fare ci kujje gi wan nañ la ne ñoom am nañu intention léegi li worof di wax bu war yàggee nga war feeñ wala bu jaabi yàggee nga war feeñ bi ñu yegsee Barthélemy Dias invité wuñ ko ci Maïmouna Ndour Faye manque de culture générale am yóbbu ko ci parce que parfois da ngay téye ci benn affaire ba far daanu parce que dafa yaakaar ne régime euh, comme dégolien bi nga xam ne moom la ñu am ci euh, kii bi nga xam ne ci quatrième république maa ngay dem France nag tey mais loolu dafa concerné Sénégal moo tax ba tey parce Sénégal da koo jël ci moom am aadama moo tax ma xam loolu mais bu doon ak loolu loolu du ma ko xam <laughs> ba tey maa ngi maa ngi jëm France. quatrième république jafe-jafe yañ ci amoon ak cin à euh, cinquième république loolu moytu loolu surtout de Gaulle ak ni mu accéder au pouvoir ñu natt président jox ko doole yoo xam ne ensemble amu ko wala moom mi ko taxaw parce que noonu la demee. léegi loolu bi mu ko waxee bari na ci homme politique Sénégal yoo xam ne jàpp nañu ne opposition bu ëppalee ay député moom moo sañ a tànn première ministre. te alors que tey nii opposition amee 35 députés yàlla tere bu doon parti au pouvoir ñoom ñoo am 35 députés du tax opposition bi mën a fal première ministre. parce que France ca jamonoy De dafa évoluer après bañ yegg si waat indi mbir mi ba nga xam ne foofu nag war nañ faa yegg man loolu laa gëm war nañ faa yegg mais yeggaguñ fa comme Barthélémy Dias toog na ci plateau Maïmouna Ndour fay may jaajafal may jaajëfal a foofu culture générale macha allah mu taxaw ne ko li ngay wax ni mënul nekk parce que nangam pour Barth justifier loolu au lieu buñ leen corriger wala nga wax xam ne xel puso la mag mën na ko for xale mën na ko for yow professeur d'université biy jàngale wala professeur histoire wala lu mu mën a doon biy jàngale nit mën ngaa fekk ab kaw kaw toog xam loo xamul nga wàcce sa bopp mu taxaw foofu bañ ko ba loolu daaneel puus ko ci mu wax ne ñoom bu ñu faloo maanaam ñoom suñ neexee suñ suñ suñ suñ suñ amee kii avion du naaw nangam du daw ba wax ne sax bu bu loi ñëwee mën nañ koo bloqué même boo waxul sax jublu ci de dama koy bloqué à la dix wala ni koy waxee dafay dugg ci xelu électeur bi kon li taxoon Ousmane Sonko ko wax ko du li nga wax li taxoon Cheikh Thioro wax lee. Hmm. du li nga wax. may mun a jéey même ni nga ko ko waxale te d'accord ma ci fii laa toog ñaaw ñaawlu ko parce que li mu wax mooy mi ngi mel ni rek dégg naa leen ali nga ñëw ñii di la géeñ dara nàngam te xaw gëw ma ne dëgg la ñu wax ma ko bi ma yegsee ma ne la ñoom de biñ ma koy wax sax dama ne leen bu dee moom la sax moo tey xam nga loolu bokkut ak boo sàccee wala nangam nangam mais même en tant que ministre nga wax kàddu yooyu parce que problème mooy erreur soo jàkkaarloo ak sa kujje man damaa bëgg chaque fois Pastef di gagné te wax yooyu sa kujje gi mën nañ koo jël yàq say wax comme nii nga def nii tey moo tax man damaa jàpp foofu ne d'accord ma ci li mu wax daggal ko foofu kon amuñ problème yi ngeen xam ne moom ngeen am soo faree fenn di defendre euh, lenn ak kut ko kut ak yooyu loolu amul solo penc mi dañ ci soxla ay opposant yuy opposé léegi nag ci ensemble bi lenn moom wax naa muy euh, ne suñu bëggee askan wi wëy di ñu wóolu man tiituma sax tey ci ministre yi parce que jàpp naa ne su député yi defee li ñu war a def benn ministre du fi dëngal parce que am na loo xam ne muy presse bu libre ak opposition bu taxaw bëgguma benn opposé may ñii dara parce que loolu mooy tax ñuy jëm kanam loolu dafay tax yow mi président ak ñi nga fal ña nga fal kenn ku nekk di góor góorgóorlu xam ne boo defee lu xam nga tey kaawu Azer ak kaawu Abbas Fall bi ñu jël ba indi ci waxu may mën a jëyoo benn bu ci bu ci bu ci tegu boo xam ne tey mën nga cee tuumaal Abbas Fall amul mais ñàkk matière moo tax ñu ñëw naan Abbas Fall en tant que député boo xam ne su Macky Sall nan la mën a amee lii ñu ci wax ak yi demee noonu maanaam du waxi dara foofu sax laa gën a meree may mun a jëy wax joo xam ne. du waxi dara lu neex a défendre lan moo ci war a mën a boole Abbas Fall wala nangam nangam au lieu nga ñëw tontu ci tontu bu mag nga dugal ñu ci benn genre dilemme boo xam ne compliqué la ñu affaire yi ba euh, nit mën cee taxaw ne kon yaa ngi rafetal lu rafetut ak yu demee noonu. Hmm. kon ndegam opposition moom mooy jël kaawu Cheikh Tidiane Dièye nga xam ne du dara loo xam ne tey suñ ko xoolee danañ xam ne li ñuy géñ euh, Cheikh Tidiane Dièye wala keneen daanaka du yëfi dara mais ñàkk matière tax te xaaruñ ba am matière doo ko wax problème mu Azer ci sénégalais yi mu war a jëm muy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo war a nekk les bénéficiaires ñun lan la ñu amoon temps ñaata village la ñu waroon a électrifier dans première premier temps même ba fa kële di nekk muy euh, euh, directeur bi fi njëkkoon a nekk kooku bi ñu njëkkee départ neuf cent et quelques villages la waroon a nekk moom mu naroon ko bañ a def ñu wañ loxoom ba mu nekk euh, mille cinq cent villages sans misère ñëw yóbbu ko 1700 kon boo ci taxawee bëgg a gàkkal te xam ne loolu ngay dugg amoo matière mais la loolu yaa ngi koy wax te loolu li ñuy wax offre spontanée la ba tey sax yaa ngi gis bi ñu demee mbir mi gars yi euh, gàntal leen ci jàmp gi jàmp gi mooy urgence bi nga xamee ne moom la Azer wax ne niñ leen ni ARCOP taxawale ne mbir mi waruñ ko taxawal parce que liñ bëgg a def dafa jàmp mel ni rek tey nga ne ah euh, jigéen gi war a wujjeeg jëkk euh, wujjam di ko kii ba pare daal ne lii sama yëfa mu ne ko deet lii euh, rënd bi sama rënd la ndawal gi nangam nga ne ko ah gis bi daal ne ah kon nañ xaarandi ba xam li lijjanti kan moo war a moom rënd bi maanaam keccax bi ñu teg moo waxee rënd nag mën nga koo jàppee ndawal mën nga koo jàppee leneen hmm, gis bi bi nga ne nga wax noonu nga dem ci yoon nga ne ah gis bi loolu bu ko defee ndawal gi day yàqu di gis bi bi mu xoolee ne la lii kat keccax la te keccax mën nañ koo denc ay fan kon jarul ngeen yàkkamti kon nañu toog ba nangam loolu rek ci la ñu débuté ñële muy li ñuy wax euh, euh, urgence bi ñu évoqué gars yi jël ko def ko beneen kii muy li nga xam ne moom la benn waay waxoon mu ne la pertinence d'un projet se mesure par son impact sur les sur ses bénéficiaires maa ngi juum nag voilà sur ses bénéficiaires et non sur les réalisations mu ne impact di PSE c'est neuf cent mille de dette pour le compte de sac Sénégalais yaa ngi xool maanaam tey yi ñuy wax muy impact bi muy def tey ci population bi est-ce que bi ko sant Michel yoree lay gën a impacter population bi positivement maanaam ci li sa li Sans wax ne nañ ci dem. Mhm. te pourtant loolu lañ jël bëgg ne kii yaa ci am nangam naan na leer na nangam nangam kon sur amuñu problème gis nga li gën a neex ci opposition li ma lay dégg euh, digle digal mooy da a yàkkamtee opposé amaana mën naa am ku juum comme tey ni ngay waxee kaaw. ah euh, kaaw Azura kaaw neneen boo ko waxee dañ ciy d'accord te da ngay gis boo fi nga koy waxee da nga dégg majeure partie waa Pastef yëpp taxaw di ko ŋàññi te pourtant yaa ngi naan duñ ko ŋàññi te kii xam na ne fii luñ fi war a ŋàññi nit ñi dañ koy ŋàññi te bu ko kii déggee noonu laay jàppee. d'accord pourtant yaa ngi wax loolu parce que ñun looloo ñuy jëmee kanam dañu war a yegg ci Sénégal boo xam ne gis nga lu bon beneen bi muy li daan am te ñaaw. Pastef bu ko daan def. Mhm. yaa ministre de la euh, terre de la justice bu fi nekk. Macky Sall nekk fi bu fekkoon ne Pastef ay terroriste lañ wala ay saaga lañ ñoom ñoo war a liggéey ci seen xarañ parce que jox nañ leen lépp. ba yamale Pastef ba du def lu bon loolu léegi nag moom bu xullee ba Pastef def lu bon loolu ma fekk si la selon yow sa sa logique am ñu mel ni yow ba Pastef def lu bon ba askan wi jox leen ñu wan na ñun ñoo war a baaxal mais lan la askan wi xaar ci ñoom lu dul baaxal baaxal dafa yegg ci mag ñi responsable ku mel ne Moustapha Diakhaté ëpp naa def mu yëkkati kàddu yu ñaaw yu bon yooyu mécanisme yuy tax loolu dootul am dañ ko war a teg kon même yow li nga war a def da ngaa war a saluer loolu la xewoon nag bu yàgg kas waa Pastef wala nangam doo ko imputé waa Pastef de déedéet ak yomb man damay wujjee yow tey nii ngay wujjee nii man du ma la ko imputé damay bàyyi bi nga waxee ba pare mu ñëw dajji li ngay wax. parce que damaa jàpp ne man damaa war a nekk en l'aise pourtant yow yaa ngi jàpp ne man a ah damay mer meru ma comme li Sonko doon wax boo ndewut tànk ma dënk man hmm. meru ma sama kanam la yàlla binde noo xam ne su may wax dara lu ma ñor hmm. maanaam man sama dëgg dëgg la sama caaxaan dëgg la man damaa damaa kaare li may tag taxé sax nit ñu bëri arrogance lañ lay wax mais heureusement mën na nekk te lu ma war a changer la bu fekkee ne mi ngi ci man mais moo ma gënal ma doon naaw fekk yàlla na ma ci yàlla musal d'accord ñoo jox bii jëlal kii boobu donc assemblée euh, bi ak 130 euh, députés yi boo dégloo ji bi moom daanaka amu ci yaakaar député yi ngeen nar a yóbbu foofu waaw euh, jibi bi gis-gisam la wax xam nga nag day toll foo xam ne nit ku nekk ah da nga koy nangul da koy bàyyil gis-gisam waaye ñaanuñ loolu yàlla ñun loolu noonu mm-hmm. ñaanuñ loolu yàlla mm-hmm. assemblée bu mel ne bi fi nekkoon jigéen ñay regaju di ko di xaste di wax wax yu ñaaw du mu sax tudd seen tur dàkkantalee seen jeexitalu tur Macky Sall soo tuddee Fatou ne man la Fatou Macky soo tuddee Astou ne man la Astou Macky hmm. ñu doom nommé la bi député te ñoom ñi la nommé ñoo la gën a xam ne ñoo la gën a xam ne li ñu lay doyee lenn rek la mooy le cas de sonk bu ñëwee bu jógee yuuxul lu mu wax saboté ko ainsi de suite ainsi loolu mooy député. Mm. député yooyu moom la ne amul tey jii nii législature législation bu mujj bii mu ne amul ci ñoom yaakaar ñaata moromam ay jeunes ak ñu mag bien instruit bien préparé bëgg seen réew di ay ndaw am avenir yóbbu leen si législation bi demaguñ ñu li leen di préparer en séminaire sali Portugal mu ne amul ci ñoom yaakaar bu ko neexee fii nga toog. ni nga toogee taxaw jataay bi ak li nga sol bu ko neexee ma ne li nga sol maron wut loo ci mën manoo ci dara gis-gisam la nit nag gis-gisam bàyyi ko gis-gisam te yow sa gis-gis mu positive man li ma gëm mooy sénégalais yi nga xam ne ñu ëpp ci ñoom ñoo tànn député yi ñu tànn ñu jëm ci assemblée nationale péncum ndaw réew ma jublu bi mooy ñu soppi li fi nekkoon ndax xam nañ lan moo fi nekkoon kum neex kum naqari dëgg doy su ko raay yàlla mooy wax si alxuraan mu ne bu ñu lay rey sax waxal dëgg te fii kenn du fi rey kenn li fi amoon dooti amati mooy benn ñaareel ba assemblée nationale bi ñu fi doon wax ne maay député diwlaa loolu dina jeex loolu day jeex man nag je ne fais de partie yoo xam ne damay cautionner lu ñaaw du ma ko def je ne fais tamit de gens yoo xamante ne ni damay ànd ak yow ne la sa costume bi moo rafet sa yére moo rafet dëkkee ak yow noonu du ko def quand il s'agit de dire la vérité je fais face à toi janoog yow wax dëgg du ma tax a takk weer dañ maa yar ci dëgg man de su ma demoon assemblée nationale du ma nekk assa du ma nekk député kenn député sénégalais yi laay doon jox ñoo ma fal député réew mi laay doon projet verbal euh, euh, euh, luñ ma wax ne naa ko voté te méngoowul ak bëgg-bëgg sénégalais yi duma ma ko voté ak ku ko mun munti wax ndax man je reste un homme libre et indépendant je reste un homme bu am vision bu claire boo xam ne dama bëgg lu may def ëllëg si biir ma jox ci waaye sama diggante ak sama borom dama bëgg nekk nit koo xamante ne nii lu may def dama ci ànd ak sama conscience bu tranquille bu ma tëddee nelaw ndax la futur ne manque pas mais on doit toujours lui réserver sa part ëllëg du lekk du naan mais lu jërë sedd la man foofu laa fi ne kon moom bu fekkee ne dane amu ci yaakaar sénégalais yi ñi ci ëpp am nañ ci yaakaar moo tax ñu yóbbu leen assemblée nationale 130 députés 665 du caaxaan xam nga ne du caaxaan du caaxaan ñu tànnee ko noo xam ne ça n'a jamais eu dans l'histoire politique du Sénégal du Blaise mi njëkk nekk du Blaise ak Ngalandou ba tey je di dis du Blaise depuis Blaise Diagne ak Ngalandou Diouf ba tey jii nii musuñ ko tànnee noonu hmm. waaw ñëpp ci gis seen bopp jeunes yi góor ak jigéen indi handicapés yi ku yëpp gis nañ seen bopp musul am te bu ñu demee assemblée nationale di nga xam ñi préparé nañ leen di nga xam ne ñii ñu bëgg seen réew lañ moo tax ñu tudd patriote di nga xam ne ñii seen réew da leen a ñor ba li ci xew ba réew mi di leen di seetlu bu ba léegi malgré les discours malgré jafe-jafe yi malgré métit yi malgré liñ fi liñ ñu liñ ñu liñ ñu teg lépp ñu dem assemblée nationale dañoo bëgg réew mi fi mu nekkoon mu jóge fa loolu mooy dëgg ñu bàyyi caaxaan yi ñu bàyyi jaayante yi ñu bëgg ba ñu bàyyi réew mi ñu bëgg jël def ko ay kenn ku nekk foog na équipe bu nawetaan la damaa war a fal sama équipe du loolu. nañ faral Sénégal le Sénégal est de la scène le Sénégal moo nekk ci kanam mooy lépp mu ëpp doole yow moom ëpp doole moo ko ëpp doole. man loolu laa gëm. leneen li nag mooy dama ko dégg mu ne Bougane y un gendarme je ne sais pas su ma juumut nee na euh, du refus de tempérer lañ ko toppee bu leen neexee ñoom ñu bañ ko toppee refus de tempérer mais yow gis nga man gis naa mu wax ak un agent de la gendarmerie mu ne ko président de la nekk fi daa nekk fii xaaral après président génn yow nga dugg. mu ne ko sa sa chef sa patron moo la wax loolu dis-lui que ba Bougane va à Bakel y a un autre nervi à côté ñëpp a ngi koy gis mu ne ko dama bul fuy faale ñi bul wuy ñii demal sa yoon. lan la ñuy tuddee refus de tempête. foofu mu ngi ñu ngi koy toppee dañuy tuddee outrage à un agent assermenté. Euh, refus d'obtempérer bi ci lañ ko daal di daan. jeex na mais fee gars yi ñoo ni deful li ñuy tuddee. Euh, waaw foofu jumte la donc foofu gars yi lee lañ bu bett. refus d'obtempérer ci ko daan loolu kon loolu ma loolu ñun ñoo ko gisandoo suñu bopp xaaruñu pour kenn di ñu ko wax. pour ma rectifier foofu quoi. ñoo ko gisal suñu bopp bu ñu nekkul Bakel tamit les les images muy wax nit ñi di ko dégg mu mel ni ku nekk di jeudi film yooyu dafay dama ne bu leen neexee bu leen naqaree. fii ay mag yu ñuy joganteel néew fii ñun seen ay morom lañu dafa am fuñ jaar ba yegsi fii ñoom nag dañ ko dundul moo tax xamuñ ko ndax nit ku nekk loo dundul xamoo ko ñun am na loo xamante ne bu ñu koy wax ak sax duñ ci bëgg a yegg fenn fii parce que dañ ko dund tellement que c'était dur et difficile waaw opposition boobu ñoo ne dañuy bloquer assemblée nationale ñoo fi nekkoon di bloquer assemblée nationale au moment où ñoom ñoo nekkoon euh, euh, euh, au pouvoir bloqué assemblée nationale weesu Ousmane Sonko bu jëlee kàddu assa ñoom ñëpp ñu génn salle bi on était là ñëpp ay vite salle bi génn salle bi bàyyi fa Ousmane. ku fa jot a des mooy ñi nga xamante ne nii li ñu leen di doyee mooy nga xas Ousmane ak nga saaga ko nga wax ko lu ñaaw ñooñu la ñuy jox assemblée nationale gis nga réew mi réew mi kenn dafa boo gisee ñu daj leen yóbbu sa sa biti andi majorité ak jox ko euh, euh, Pastef les patriotes c'est parce que sénégalais yi ñoo yeewu. xam ñi liñ fi nekkee woon démb ak barki démb gis nga ñii nekkuñ fi douze dimanche ñii nekkuñ fi douze mercredi ñii douze ans lañ fi ne ils ont fait trop de mal aux Sénégalais buy noppi di am ñoo war a noppi bu yaru di am ñoom ñoo war a yaru waaye mënuñoo nekk minoritaire ba pare nag il se croit être au-dessus des gens il se croit tout permis kenn du leen ko may man maa la ne kenn du leen ko may leneen lu muy wax ne euh, euh, euh, procureur dafa wax Ousmane. ministre de la ministre de la justice dafa wax Ousmane. li ngay wax nii te loolu Ousmane moo ko nettali bu dee kon lu safaane la Ousmane du taxaw waa këram yëpp taxaw grand théâtre ci esplanade ba muy wax loolu Ousmane ni mu ko waxee moom ak ni Ousmane waxee demeewul noonu de xam nga lu Ousmane wax. Mhm. le le le ministre de la justice m'a appelé. nee ma si sa njaboot gi gis nañ ci koo xamante ne nangam la def ak nangam mu ne ko monsieur le ministre defal sa liggéey mais ministre bi par décret lañ ko nommé wala nommé wuñ ko par décret moo fa andi boppam. yàgg naa nekk Sénégal déggul ministre je le connais très bien man man laa wax alxuraan da ne ma macha allah ilaa bi ma alim loo xam yàgg na ci réew mi déggul ministre le ministre la woon man ba ma koy xam c'était un procureur si benn région kon bu ko nommé décret lañ ko nommé par respect. Hmm? njabootam la bokk ñaari taxawaay moo ci am Ousmane dina ko ne defaral sa liggéey waaye bëgg na tamit Ousmane bu fekkee ne am na lu muy jàjj njabootam wax kook ñoom mu def kook ñoom mu wax kook ñoom gis nga nekkuñ ci réew moo xam ne dañuy jayante man jomm naa di dajeeg yow wala mu lay gis di sëgg wala muy wéeri nañ leen ànd ànd naw la ñu respecté kenn ku nekk jox sa morom wàccuwaay ñu bàyyi di jayante moom ak ak ak ak di xoolante yenn bët yi muy andi animosité. bu fàttaleku di am ñun ñoo mun a fa war a fàttaleku ndax lu fi gën a métti ci réew mi ñun lañ ko teg te ku fàttaleku soxor. d'accord di ko Ousmane waxeewu ko noonu li ko wax mooy te bu ko neexoon mu wax leneen mais da ko ne lan ko ci suuf munoon ko faa denc loolu la wax kaw kon Ousmane amul waxi suuf ak kaw benn kàddu am mooy monsieur le ministre defar sa liggéey kooku def na liggéeyam est que bu doon démb la yow di nga doon séntu loolu xale bu jigéen nekk na fi sali saaga wolof yépp que les wolof mérité nañ ñu leen di saaga fan lañ mujjee ak moom koloo-koloo ko utal ko jox ko visa génnee ko réew mi mu dem Italie on était là ñëpp seen xol yi di metti ñii lu ñu def jomm nañ sax te gis nga sa diine yar biñ la yar ak ni ngay nawloo sax nit ñi ndax nag man si l'habitude de le dire on peut être des adversaires politiques mais nous ne sommes pas des ennemis bu dëj amee ñoo koy àndee bu leneen nag ñoo koy àndee bu ñu fi xellee café léegi kii bu naa guux jox ma ma guux kon am na ci loo nañ leen mature waaye ñu bëgg Sénégal te bu ñu bëggee Sénégal dañuy bëgg jàmmi Sénégal jàmmi Sénégal mooy tax suñ koom bii ñu séentu ak bi ñu gis ak bi ñu gisagut ñu mën a dox jëm ci bi ñu gisagut ñu gis ko bi ñu gis ñu jëm ko xool que selon les voies et yu ñuy yoon yu la ñuy jël pour mën koo jariñoo ndax lu dul jàmm jàmm ko gën. Hmm, waaye mënumaa gëm ñii yor alalu réew mi te ñoo war a gën a xam nañu ko ak alalu réew mi. ñenn ñi nekk ci ginnaaw ñu leen di jox seen entre nekk si wala ñu yor seen dépense wala yeneen ak yeneen pousse leen ñuy wax ni ñi lu ñaaw ñu foog ne ils vont s'en sortir billaay bu ko gars yi nangoo man duma ma ko nangu. d'accord man munoo ñàkk nekk ci dëgg ba pare bëgg maa ëpp làmmiñ munoo nekk dans dans daa si si si si moment de faiblesse ba pare bëgg a bëgg a nekk au devant de la scène di ma wax lu la neex. je ferai face à toi prix parce que nag ba ma néewee doole aw ma benn doole yor ay xeer képp ak ay gone bu fekkee ne boobu laa jonoo woon ak yow xeex ak yow ba dijjite la ci fauteuil bi nga yor yóbbu la def la tiktoker waxuma la tey bi nga xamante ne doole yëpp maa ko am man dama doon gis ne doomu aadama su fekkee dañ laa yar nga xam àdduna bu jamono demee ba soppeeku da ngay xam ne jamono soppeeku nga boo amutoon ay teggin nga wut ko boo amutoon yar nga wut ko boo amutoon ay worma nga wut ko waaye na nga meloon ban dijjite la jëlee la ci biti yóbbu la biti tey nga gën a doy mais ban ré àdduna lañ ne kan moo leen ne ñoom dañoo am ci réew mi lu ñu fi amut il faut qu'il il faut qu'il arrête yoon nag ñoo la gën a xam ne tey yoon am na fi dafa am ñoom fu taxawaay bu ñu am kay yoon war leen a woo di leen woo man moo ma war yoo war yoon waree woo daf may woo bu waree woo keneen da koy woo ñoom ñu tollu ci moment boo xamante ne nii dañ leen a war a woo di leen woo ñun lu tax ñu leen di woo hmm. ku nekk di baw lu waral yuuxu yi d'accord man yuuxu yi boobu ba léegi laa xamul lu ko waral te mbir mi départ agut xam nga ce qu'ils n'ont pas compris damaa xam ne lii départ agut man je te parle en connaissance que de cause que nag lii train bi départ agut su ngeen mënee yuuxu dina dina gu neex na baat jant sona su ngeen mënee yuuxu dina leer munu leen fi xëccoo fi ay ndombo tànk yor fi ay ndombo tànk ay poste de te ngeen yor ko fi bu dul dara sax da ngeen waroon nangu ko leen contrôler ne da nga koo wóoluwut au contraire ki kon ki lay contrôler ak ki lay laaj li nga yor noo ko yoroon sax moo la dimbali ñu bëgg a taxaw yor seen làmmiñ di yuuxu population bi majorité bi lii demande sociale la lu ci bari loo xam ne gouvernement ba nga koy def demande sociale la te ñoo fal ñoom waxuñu ak opposition gis nga le régime en place waxuñu ak opposition opposition bi leen wax nag dañ lay tontu ci waaye taxuñ leen a jóg xam nga ñan tax a jóg sénégalais yi leen fal. jël majorité jox leen assemblée nationale. ne leen ñoo leen ci kër jiitaloon duñ leen fa xastal tey la ñuy gën a ànd ak yéen te dinañ leen gunge. ku seetlu bu njëkk ñi fi nekk tey ba jël réew mi kuñ si woowaan majorité bi jóg taxaw ñu jël gendarmerie dóor seen kaw jël police dóor seen kaw tey kuñ fi wow da ngay dem wuy ji doo am ñetti nit yu la gunge parce que ñoo la gën a xam li xew. léegi nag bu ñu foogee ne toog ci ay plateau di yuuxu moo koy rey du lool de man de jàpp ma lool. su ma may conseil bu ma leen jox daal mooy dal moo koy réglé. d'accord bu poussière bi jógee pënd bi jóg. Hmm. boo dee nit ku yeew da nga naan tekk ba pënd bu wuri. nga xam fan la wànnent du mu ay bëtam. fi wànnent di mu jég gi gëtam. on a deux tours d'horloge maanaam euh, def nañu deux heures de temps te yëguñu ko. waaw man def dernier tour di table. kaaw kii bële bële mën a. def nañ deux tours d'horloge waxuma dara. Hmm? balla ji. mooy kaaw dossier peut-être dafa neex moo tax waaw amir abet bi euh, euh, émission bi neex na man waxuma dara <laughs> man tàmbali parce que bul waat bul waat bul waat waaw nga lu tax ma koy wax parce que dañ laa tontu ma ci Jean Michel tontu ma ci non ñii li ñu def loolu loolu mun ma ko bàyyi noonu. il faut ñu tënkaat beneen jotaay kon. parce que amir amir bi rek war nañ ci non non avant muy ñëw ci amir man maa am parole. waaw waaw yow yow yaa amee parole dañuy dañuy dañuy dañuy. non mais mais nag mais nag nga jeexal nga jeexal nga jeexal nga jeexal nga. non xaaral xaaral xaaral xaaral loo ah, yaa joxe. Ah, kii sëñ Ndiaye sëñ Ndiaye. sëñ Ndiaye non may ma tuuti déedéet yow lan moo la dese. xam nga loolu mooy problème bi. man demee gérer tout ça xam nga yaa ngi noonu amoo yow bi ñuy wax. non non demee gérer tout ça. kon nga yaa ngi ci doon gis problème. alors may ma may ma non dama lay waxal. waaw ah, attendez fii la tudd. non di ko tontu di ko sëñ Ndiaye may ma tuuti may ma tuuti ma wax la. may ma wala non dama lay may mais dama lay may. est-ce que ma bàyyi ma wax la ba pare. non non xaaral. un jeune très compétent. non non xaaral xaaral kii kii ma leer ma leer ma leer. non non xaaral. non non booy mon cher man maa war a wax nag. déedéet non néew ma war a wax grand. grand néew ma war a wax de. franchement est-ce que est-ce que yaa ngi may dégg. non est-ce que yaa ngi may dégg néew ma war a wax. est-ce dégg ma a war a wax. non je taxaw. je voulais juste vous rappeler man ak kii leneen laa yor wax pour nga comprendre ko man ak kii ñoo yor concept émission bi. je tuddee ko xel non déglu ma déglu ma tuuti. Mhm. danaa danañ waxtaan. beneen débat mën nañ ko seq. parce que mënuñu ñëw ci li ñu ñëwoon yépp parce que bu ñu ko bëggee def man déjà heure bi daaw ma fekk. une heure trente la ma dem. tey ni format bi neex nekkee nii su ma neexoon jaar nii jóg dem parce que waxuñu ma woon lii. parce que man bu ma du ma tooñ ni mu demee mais ñuy inter dafa neex ak yu demee noonu mais may ñu rek ñu dugg ci kii bële bu ñu ñëwaatee yow kay amul problème ma ma ñëw kii invité ñu sax beneen émission boo xam ne amul problème ñu jàkkaarloo wala mu kii yaat ñu waxtaanee rek bu rek ci boobu léegi waaw waaw mais dafa neex mais mais mënuñu wax ci lépp may naa la yow da laa jël sa numéro sax amul problème déjà man daf maa laal. waaw waaw mais dañ dem kii moom kii moom non dañ dem ci àll bi seen café doo ko defati doo ko toogaat ci plateau <laughs> parce que parce que du tax kii li muy wax c'est-à-dire que kii. waxu far kese kese <laughs> kese lay wax ci plage bi. léegi <laughs> que yow cas Amir yaa ma bàyyi saa wolof mu ñëw ci ah. non non Ndiaye wuyu la yow léegi le cas de Amir. waaw mais mais moom wax dëgg yàlla euh, pour sa cas Euh, nit day wax te yàlla tax sincèrement. Hmm. maîtriser wu ma. Ah, euh, euh, dossier bi sincèrement. Hmm. d'accord te wax dëgg yàlla préparé ma ko aussi ba may ñëw. dégg naa ñu koy wax. waaye man du ma avancer si loo xam tamit. Hmm. vraiment gis naa ni daal am na yu ñu ko jiiñ am ay autorité ñu si tudd. ay kilifa aussi yi ma dégg. ñu tudd leen ci sincèrement bu ma sañoon lool aussi. vraiment lépp lu ci juste mën def pour mu leer rek mu leer parce que man franchement. le gars c' première fois sax ma dégg turam. yàlla rek a tax may wax. yàlla rek tax may wax vraiment maîtriser ma ko. xaw ma tënaay aboutissant yi. mais wax dëgg yàlla na sax ñi wax moom ñoo ma leeral quoi. mais moom maa ngi ciy parce que yëgu ci dara. saa moom am na ci plus d' info. mu toll dossier bi saa ñëpp moo ñu ko war a leeral. Amir voilà surtout. dafa bari. waaw moo bi tàmbaleegut. <laughs> li ma jiite gi ñu jiite dafa am yu bari yu mu bàyyi yoo xam ne muy prospérer. ay te te da war na gis nga kaawu Amir bi li li doon jublu bi ba ay nit di ko dëbbal. Mm-hmm. li bëggoon mooy mu mu dóor président joomaay léegi nag danga may may Babacar Touré. jàmbaar la lool gis naa démb sax ba mu wax ne Cheikh Yérim daa kii ñenn ñenn di ko defendre pour bëgg ñu ne moo mook Atépa bu jaay wala naaga man Babacar ku ma xam-xam ne moom Cheikh Yérim yàgg naa wax ne lépp lu Yérim bind Yérim nag dama leen di teel a wax maa appoon ñëpp complexe maanaam ay ba 2013 maanaam Cheikh Yérim moom lu mu wax damaa jàppoon ne maanaam après 2012 lu Cheikh Yérim wax dama amoon complexe dama ko doon déglu comme dof di ko suivre comme dof fi ma teg Cheikh Yérim mooy lépp lu mu wax maanaam kàcc ci man laay bind ci wet gi. ba gis lu ko confirmer ma doog a jël. non sama gisin laa lay wax pour man sa Babacar Touré bi jàpp ne Cheikh Yérim moo ma mën a wax loo wala keneen ak keneen ak yooyu damaa bëgg suñuy traité dara ñu koy traité comme maandu mu gën a maandu. Babacar kenn du wax ne doo journaliste amoo xam-xam wala doo journaliste d'investigation jàmbaar nga dossier yu bëri jàmbaar nga nit ñi. ñu bëgg bëgg ñu gëm yow li ngay wax te du noonu nit ñi mooy li ma wax sànq rek yàlla sax yonent yi bi mu leen yónnee da leen wax ne leen kuy gëm ak ku dul gëm moom. loolu man la ci man la. yéen woote leen rek. moo tax benn yonent bi dem abandon de poste muy yonent yàlla Yunus sax di dem sax gis nga ni ko yàlla mujjee natt kon foofu te yàlla laajuñu résultat effort la ñu laaj moom mooy antul wala mu bañ a antul kon ñun lenn lañ gis dañu gis Amir Amir Abo gis naa sax muy ñëw naan. tuddut abu son yi bu la kii déjà manque de culture générale fa la tàmbali pour man Babacar ak même lu bu nekkee journaliste bu juddoo fële wala nangam mais jàppoon naa ne xam na réew mi waroon naa xam ne abo mooy son yi bu. benn man sama sëriñ sëñ aboo lañ koy wooye te sëñ son yi bu la tudd. sëñ son yi bu ci boppam la ñuy bàkke abo Madiyaana baaraay Mamadou Lamine <coughs> du noonu. c'est moom dafa am yu bëri yoo xam ne culture de rap Sénégal xamu ko xamu ko daf ko desee peeg moo tax mu jàpp ne sax bi mu amee info pour waa ji dafa ñëwoon di dóor li ñuy tur bi ça n'a hmm. waaye man leen rek laa ciy wax muy Atepa Goudiaby ak Cheikh Yérim ñoo yam képp ci vidéo bi ma gis soo mënee may circonstance euh, nu ngeen koy waxee circonstance atténuante noonu boo ko mënee may si Atepa waaye wax dëgg yàlla may ko Yérim man jàpp naa ne Atepa xaw ma ko ci caaxaan wala nàngam mais man bu ma xamoon kii ci caaxaan xam kii ci dëgg buñ xëyee joxe jote sama xel mën naa nangu ci ne ki newoon ci dëgg chaque fois dëgg lay wax mais nag bu ma jàpp ne bis bu fekk àtte am damay jàpp ne ki même ki nekk ci dëgg mën naa xëy tooñ. Mm-hmm. ki daan caaxaan tamit mën naa xëy wax dëgg. Cheikh Yérim bu ñëwee ne dóoral ñu ne ñu amir nangam. ci wàllu cahier de nangam carnet d'adresse am nangam mais li Atépa wax moo gën a garaaw mon cher Amir yow yaay bouge maanaam bouge et et xaw ma oreille am na nu mu ko formuler maanaam yaay làmmiñu kii di bëtam buur bi maanaam prince kii euh, muy euh, Ben Salman. la bouche et l'oreille. waaw la bouche et l'oreille mais loolu moog li Cheikh Yérim wax benn la. ku nekk da koo dëbbal boo ñu bëggee indil nañu suba Subatel moo ko présenté paa bi sang paa bi ba mu set ak Matar bëgg a sang Cheikh Yérim ndoxum duus duñ ko nangu dañ naa la du jàll tout temps man Cheikh Yérim gënoo ma koo compte dama bëri compte yu ma war a régler ak moom mais nag ci cas bi soit ñoom ñaar da leen ciy yemale ba lu justice def après ñu xam ne ku nekk li nga ci taqe parce que li nga def dafa yomb trop. ñaar du ñu am ne lëjj ci mbir ñun sénégalais ñu bëgg a xam lu ci xew nga bëgg ñoo préparé fàkkal paa bi sang ko ba mu set dem jël seex yi rém non seulement sangoo ko sax mais ndoxum foos nga ko bëgg sange dañuy lànk loolu du jàll. loolu du jàll loolu noonu bu ñu la koy wax dañ lay wax ne la loolu du jàll. c'est même pas sérieux. c'est pas beneen bi muy vidéo yi yi nga ñuy préparé nag naan ñu kii justice xam nañ ci ñi ngi naan leneen parce que loolu la gars yi bëgg a def seen défense dama ne vidéo yi. wala enregistrement mag mu woo Amir Mbàkke ba tax nga Amir Silla ba tax nga saaga benn chef de l'état wala benn première ministre su koy vidéo génnee gis nga li falsifié photo falsifié wut audio falsifié wul vidéo attention bu vidéo bi génnee tamit danañ xool su amee ay montage danañ xam fii moom vidéo bu authentique moo gën a neex a xàmme yow kii di om d'affaires yàgg a liggéey ci ay photo sop lañ koy naxe ak li nga wax ne nee nga waxu teeloon nga koo wax parce que affaire bi du nëgën euh, du nëgëni wax nga ne depuis 2013 la amoon kii fekk fa Cheikh Yérim fa lañ xamante yow euh, alerté woon nga paa bi mais alerté woon nga paa bi ci Gabriel Kane mu dem ànd ak Gabriel ba li Gabriel di wax nga taxaw di ko setal tey nga ñëwaat waat alerte nga paa bi li liñ na naan xaw ma nu ngeen koy waxee am na tàmbali ko rek ñu yeggali la. voilà maanaam ci lim muy wax mooy nit ki boo ko artoo da koy bàyyi bu ëllëgee magam jëmm la ba nekk milliardaire bay xëyloo ñeneen ak ñeneen nekk architecte bi gën a siiw fii kon bu fekkee ne yow art nga ko ci ñaar yëpp mu continuer foncé ci mbir mi ba problème am ci ah jaaxaan seetal la ko ci noonu de. man nag foofu man damaa bëgg ñu yemale leen. foofu nag foofu nag Babacar du leen yemale. ah Babacar. Ah. waxoon naa la ko fii dinaa la ko waxaat. Babacar du yemale Atepa Goudiaby ak Cheikh Yérim ndax duñ benn taxawaay taxawaay bi bi bi si bi eh, Atépa am ak Babacar Cheikh Yérim jegewul xeeñul foofu Matar Subateel mhm. digganteem ak Atépa ak Babacar diggante bu xat la boo xamante ne nii bokkut ak seen diggante ak Cheikh Yérim loolu moom dama la koy wax léegi mhm. waaw mhm. maa lay wax man <laughs> doy waaw da waaw Babacar bu mënee sang euh, euh, Atépa ba mu set wecc ba bu taxoon goudron sax mu deñ da koy def wax jàngo. kaa bi gën. ah di non non non feeñ rek <laughs> même yow mii même yow mii buñ la jàngaloo feeñ. c'est que dama d'accord benn affaire. Mhm. donc je ne le dossier. Mhm. Cheikh Yérim man euh, jàpp naa ni nit la koo xam ni nit ku baax la. nga ànd ak moom. ah man de le contraire. non moom ah, wax quoi man. Mhm. man nit ki li ma xam si moom rek laay wax. si mhm, plateau mhm. xam nga danga ma laaj ci dossier man la. wax dëgg yàlla teewluwuma dossier bi. dama dégg coow li nii rek sama waa kër ga di ko wax xaw ma li xew. ma ñëw dégg li nga si li nga si teg nii man dama bëgg bu coow amee. posture bi nga am mooy posture nit. parce que nit aussi. wax joo xam ne danga ne yow danga koy traité ngay journaliste. ci sa traitement. est-ce que am nga droit. am koy chargé am koy déchargé. ma yaakaaroon ni journaliste booy traité information. da ngay jox nit ñi information bi bàyyi leen ñu interpréter ko. Hmm. ci li ma jàpp ah, kii mooy journaliste bi de. Hmm. dama jàppoon ni journaliste. Hmm. xaw ma nag xëy na man journalisme dafa évoluer entre temps parce que nag métier yi dañuy évoluer ah. xaw ma mais man dama yaakaaroon ni le traitement de l'information boo koy def. da ngay wax fee yi. te doo taxal kenn population bi analyser ko. xam fan la dëkk les faits mais man li nga wax si laa jëli ni. Mhm. en réalité traitement bi ñu bëgg def effectivement du traitement boo xam ne déontologie journalistique nangu na ko. léegi léegi saa wolof. foofu li ma lay mayaat rek ndax nit ñi dañoo amee xel. Mhm. te wax bu feebaree nopp koy dégg dañoo wër wér. Mhm. gis nga nit ki buy wax na xam rek li muy wax waaye li ñuy déggee ci biir waxam. moom bu xam c'est ça moom nee na mu ngi doon interpellé. Hmm. paa boo xamante ne nii ci mbiru Gabriel Kane. waaw paa boo xam ne 75 80 ans la am 80 ans yi moom day teg waaye 80 yi mat na. nga koy interpellé ci mbirum xale bu jigéen boo xam ne amagul te 40 ans. te déggu la. non noonu lay wax rek te déggu la lan ngeen àndee yow paa bi ba nga am sañ-sañ di ko interpellé ci lu mel noonu nañ xalaat léegi kon day wuy jiwaat sama waxu. bu ko mënoon na sang ba mu set même bu fekkoon ne dafa sangoo a da koy def man nag waxuma lu ma xamut. c'est man mii wax man waxuma lu ma xamut de waxuma diggante boo xam ne awuma lu ma ci xam diggante Babacar euh, euh, euh, Babacar Touré Atepa Goudiaby ak Matar Diop Subatel waxuma lu ma xamut. ñoom nag mën nañoo bañ a xam. mais am na beneen am na beneen dossier boo xam ne encore dañ ci dajewaat maag moom muy dossier Ndingler. te pour man xam nga Babacar man dama ko teg comme fi ma tegoon journaliste yu bëri que am na lum ñu service bu ñu rendre man pour man dañ ko ci sax trompé wala affaire yi parce que man dossier bi dama dem nit dafa ñëw jël si ma fii jógee Europe ba yegg si la leen taxawoon a jóg muy benn affaire bu ñu taxaw ñu ne ñi ko war a taxawal dem man lañ war a jiital parce que ñu bëri dañ leen daan dóor mais moom ci biir la ko ñooñu sant leneen la taxawee bi mu ñëwee fii ay homme d'affaires nekk ci ginnaaw man mu jël si ma bëgg maa def idio utile yegg na ci 4 x bi mu yoree naan ma bu mel nii nga war a laaj <laughs> ma ne ko non man de oto du sama problème biñ demee ba yegg bi mu njëkkee di commencé di ma tegal affaire bi journaliste bañ àndaloon Kaaw Babacar boobu ñëwagul di wax moom ci boppam mu ne ko non bul ko influencé le moo influence boobu mu wax nag xaw naa yee sama yaram gis nga bi ñu demee journaliste boobu di jël ma joxaale ko sama téléphone. sama téléphone bu ma la wonoon vidéo yi mi ngi fi ba léegi ak vieux ndengal ndengaleer bi ay 3 secondes rek ay 11 secondes rek ay 28 secondes maanaam fu paa waxee ba wax loo xam ne du leen enragé ñoom manaam ñi bëgg a défendre du leen enragé mu coupé ko fa bi mu paree xoolal su mën naa la ko jox après di nga comprendre bi mu paree loolu bokk na ci fekk na sama xel ñaaw na parce que dañu dem benn jamono bi paa bi nanguwul wax parce que bi ñu waxee muy vieux Abdoulaye daf ne aw maag kenn problème Babacar Ngom sax jotewu maag moom mais état Sénégal laa joteel maa moo ma tooñ quoi si ni mu gisee kon amut ku may waxtaanal pour jéggal wala nangam kenn tooñu ma tooñu ma kenn parce que mooy entre Djilakh ak Ndingler man sama bopp maa ne góor gi xaw ma aale séeréer ak culture maam ak wolof muy culture wolof ak culture séeréer xaw nañu jege. mais dafa am lu wolof doon wax ne sukulu tee yóbbu say woom ma ne ko président joomaay mii doon seen doom atu la woon ci yow mais là fi mu nekk nii il est président de la république ni mu la avantagé woon maintenant dala koy xaw a désavantagé parce que dootuñ gis joomaay doomu. Euh, bokk ak waa Ndengler biy jóg di xeex ngir nit ñi jot seen suuf mais dañuy am na ñoom dañuy gis joomaay président de la république bu nar a écrasé benn homme d'affaires ne ko kon bu ñu la wooyee ci waxtaan war ngaa dem ci ginnaaw boobu lañ ne ah euh, waa ji ci boppam mu ne non gars yi liñ tax sax buñ kiyee comme suñ liñ fi jaar nii ba mu xaw a après Alioune tey day ñëw yeggale mbir mi ci kàddu googu sax moom mu jël Seydi Gassama bonalal ma ko ba mu bon mais comme boobu maa ngi commencé xam mu ne parce que Seydi Gassama moo doon jàppale paa ba dara xewul muy waa Ndengleer man nag bi ñuy waxtaan bi ñu demee ci beneen chef de village ñuy wax ak moom chef de bi muy wax ma ne ko non attention ma ne ko man li ma fekkee laay wax comme fekkee naa ñu bëri parce que dañoo dem ci dëkk boobu demaat ci dëkk demaat ci yeneen dëkk yi jege ak moom biñ paree ba war a conclure ma ne leen man paa bi su fekkoon ne moomul suuf sax di jotee joteeg Babacar Ngom yoonu waa Jilax nekku ci kon waa Jilax ñoo jaay Babacar Ngom keneen ñëw taq ci alalu Babacar Ngom kon kooku la ak Babacar Ngom bu demee woon noonu mais paa waa Jilax bi jàkkaarloo moom muy ñaari village di nangam ma ne ko beneen bi mooy bu paa bi nekkul sax ci dëgg comme yéen waa Jilax dañ leen a da ngeen a bazarder seen suuf amu leen ci li ngeen wax li bi de liggéey nii bu ëllëgee mën naa tax sax ngeen jotaat seen yëf parce que niñ ko jaayee niñ formuler affaire yi baaxul. effectivement biñ paree ci beneen village bi ñu jëm foo dem fekk leen difficulté yi ñuy dund. àndoon nañ ak benn huissier de justice benn soxna la. clerc huissier de justice bu mbuur ci benn cabinet. man li ma yàlla may sens comme Mbour laa dëkk te waa ji résidence am lañ demoon Saly ay booru tàkku tàkkusaani suuf ma war a am lu ma jëli suñ kër. génn pour taal sama moto am lu ma fàtte di ko jël siwaat ci laa dégg téléphone bi waa ji di wax ak benn homme d'affaires naan ko même saa wolof sax 2 millions lañ ko war a gérer. Hmm? yow la <laughs> mel ni ku ñu ma mel ni ku ñu dóor ndànk déglu ma rek. ma génnaat ndànk. réew ma rek ma génnaat ndànk. woo woo ndaw si déglu ma rek réew mi réew mi. problème bi ñëwagul de. nee na gisoo problème yi xaaral tuuti rek. tàmbaleegul. li ma la wax j'ai mes preuves man li ma yaa ni j'ai ma woo ndaw si huissier de justice clerc bi. ne ko soxna si mu ne ah ma ne ko gis nga li ñu yendoo dox. fekke nga ma fekke mu ne ah ma ne ko gis nga extrême pauvreté bi ñu fekkee nit ñi. lekk gi ñu taaj malgré góorgóorlu nañ ci ma na ko gis nga chef de village yi ñuy def nga xam ne seen drapeau yi sax daa ruus ba wadd ndax kii gis nga problème yi ñu même femmes yi liggéeyee foofu liñ ñu wax mu ne am ah, ma ne bis boo defalee ñii liñ bëgg loolu dina la topp àq jooju dina la topp ëllëg ëllëg ba sa njaboot ndaw si ne ma man day ñi ngay wax ay xalaate dañ ma rek ne man man day ba may saisir sax parce que man xam naa ne comme waa ji dagg na vidéo yi te ndaw si moom ay audio maanaam moom moom dictaphone am la taaloon di enregistré. bien sûr parce que comme que non loolu bu ñu koy wax manaam filmé nañ ñoom. c'est vrai waaw mais dañuy dem waxloo film bi. Mhm. leneen. dag bi buñ paree Alentine ñëw yeggale daal ne moo jubóole gars yi. d'accord pour Babacar Badiaye ñaag mais paa bi ñu ko ndaw si noonu ma ne ko li nga yor mu ne ah ma ne ko denc ko ci sa ordinateur en cas ëllëg pour bu demee ba wax waa Ndengler mujj nañ jot seen suuf parce que dil ba jàllut. Mhm. te loolu man bokk naa ci ñi fànq loolu. parce que su ma bàyyi woon tey ñu te yàlla xam na ne 2 millions la doon wax man bi ma paree dama dama leen a jekkuwaat te mënoon naa lekk diis pour nit ñi xam ne alal jooju danga koy lekk léegi prostate man laa dal wala yàlla nattu sa yaay AVC wala wala nangam mais lii def nañ ko ak leneen ak leneen loo xam ne ci yoo xam ne réew mi gis nga grand nii ñëw nii gis nga ñii ñëw nii bu la neexee man man le fait que nga bañ a d'accord ak ñoom dama ci d'accord parce que ñu mel ni yow ay bon opposant ngeen contre leen dana tax ñu gën a liggéey mais nag gis nga projet bi dama gëm ne ci laa wax sañ euh, sëñ du Mbacke ma ne ko man damaa gëm ne projet bi dafa am ñaan mu ne ah, ma ne ko yi mënoon a jëg gàllankoor ko yëpp nga xam ne Macky Sall lii amee si la def ñaata doomu ab doomu Turki wala doomu ku jógee France wala kooku lañu indi présenté ko Macky Sall mel ni kooku mooy chef d'entreprise ya fa nekk ñu dóor ko dóoruñu ci matière 18 autopont nga defaree ko ci 137 milliards alors que benn société britannique soumissionné 52 milliards maanaam fi ñu amee 18 autopont mënoon nañ fa am 40 autopont yow nga dem joxe ko loolu bi ñuy jël Alstom di ko jox liggéey bi 562 milliards lañ waxoon ëpp na mujj naa ëpp 1200 milliards. affaire ArcelorMittal ni ñu ci dóor Sénégal ñu dóor nga yóbbu leen ci yoon tribunal arbitraire ñu laaj Sénégal looy laaj nga ne 2500 milliards ñu mujj Macky Sall 75 la mujj laaj parce que Abdoulaye Wade wàcc Macky yéeg ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay dóor yoo da lay juumloo moo tax am. muy affaire amir bi liñ ko préparé woon pour joomaay mën a dem buy dem Arabie Saoudi ànd ak moom wala wala ñu ñëw dóor président Diomaye. yàlla weer leen. est-ce moo tax gis nga. mënuñ ko dóor yaakaar ji ñu am nii. gën a euh, sàcc ndënd yoo mën a. gis nga yaakaar ji ñu non non mais def nañ ko Macky Sall. def nañ ko Macky Sall. waaw mais mais damay wax ne. yàlla damay wax ne yàlla moo ñu mm-hmm. dimbale. ak it premier ministre bi nekk ci ci ci ci. Diomaye ñu bëggoon mu dem ensemble. na fa toog. non du dem gis nga ñun feek xam nga mooy toj suñu gàllaaj mooy nit di nekk ci ñun di tooñ ñu koy far te loolu gis naa ne président joomaay moytu na ko parce que mbokkam jote naa ak sa ancien patron pourtant bu doon mbokk Macky Sall la preuve Adama fay ki mu amee loon toon kañ la dossier bi di mujj de Macky Sall wàcc ñu koy doog a laal ak yeneen dossier côté Samuel Sarr ak yooyu mais kooku bi mu jotee lan lañ def avocat képp lañ ko wutal sa patron ko gañe sa ancien patron ko gañe loolu tëddee njaaxaanaay la man xam naa ay patriotes yoo xam ne ñu ngi ci kaso bi. du te Ousmane mënoon cee wax. foofu nag fekk jóge wuñ foofu. danañ fi jóge de. maanaam dama ne non waa kii laa wax usmaan Ousmane Sonko fekk jóge wuñ ci maandu googu ñu taxaw. Mhm. dañuy continuer yàlla di ñu sàng sutura. mais bis ñu defee nële te amuñ ci droit. Mhm. musiba am. Mhm. yii ñuy wax nii nañ ci maandu gunge leen pour parquet financier bi am na que ñuy kuñ mën a topp kuñ mën a topp laa wax. beneen bi nag muy euh, waa jii di topp gars yi tamit nekk ci douane bi nañ ko xool parce que ba fi gars yi dëngal ma nga fa woon muy Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye mi nekk ci douane bi it. Ah, moom it na ko gars yi teg bët. parce que dafa yomb rek ngay kii gars yi di daanu nu mu tuddati. homme ah, d'affaires yeeg. Euh, transitaire yi di daanu rek yow mi nekkoon directeur général douane nga toog fa rek wala yu demee noonu loolu tamit daa yomb moom it nañ xooli dossier am. d'accord. gi ñu ma ko dara de. mais da nga ne nañ xooli rek. waaw nañ xooli ba wàcc dee ba am gën cee am lu leer nag. dañu xool waaw ba ah. gën am lu leer nag. fii laay taxaw ne ko tànjag. Ah, lu leer laa lay <laughs> ça moom c'est vrai. en tout ñu ngi leen di gërëm. non saa yi nag daa war ñëw. non non mais affaire bi affaire bi c'est comme ça. xam nga tamit kii mun nañu jàppante ci débat mais ba bañu ma e ko de. non c'est aw ma ak moom benn problème. mais bañu ma ko de. non non non politique noonu la. taaroo mais day équilibré nag. politique na Ablaye Ndiaye ñëw. waaw Ablaye bi doo xoola politique. noonu la taaroo Ndiaye Ndiaye seq. non mais c'est vrai. ñëw yow politique dafa mës a taal kii Ablaye ñëw nga ñëw. waaw ah. xamal ñu gën a ñu gën a neexal débat. gis nga ñun il faut ñu bàyyi. voilà kii dong ñëw aadama dong ñëw. non mais c' est vrai ma noppal c' est <laughs> parce que parce que liñ fi wax nii bëri na fi loo xam ne njëriñ rek la. voilà effectivement te te te man li muy wax nii dama ci d' accord de. man aw ma kenn ku may protéger man. man. aw ma kenn ku may protéger. même Abdoulaye Ndiaye loolu lay wax ah. lu leer laa lay expliquer nii du ma kenn si yëfu. nekk daal la ngay def jëlal ses responsabilités. lu leer laa la wax ku nekk li nga jëlal ses responsabilités. képp ku ñu épinglé ci dossier na wuy ji. dans les règles de l'art nag. am avocat am taxaw ñu lay ñëpp gis. ku mu neex nañ ko def direct. mais mais noo gisee. noo gisee noo gisee Adama Gaye. foofu dama lay laaj. noo gisee Adama Gaye. ma dem. nekk dama koy laaj nan la gisee Adama bu wax ci benn dossier boo xam ne soxla nañ ci information ñu woo ko di ko ci déglu <laughs> muy woo nit ñi non dafa ragal rek. non est-ce que est-ce que loolu du sentiment de culpabilité. maanaam yow wax nga lu ëpp. parce que bu la wóoroon li nga wax da nga cee téye buñ la wooye. Hmm. da ngay yàkkamti joxe. c'est ça mais foog naa ñibbi na de. <laughs> mais non bàyyi ñibbi na de. bàyyi nañ ko ko. parce waaw ñibbi na waaw bàyyi nañ ko mais mais c'est que man pour man pour man. Hmm. Euh, journaliste yi. Hmm. journaliste yi ñu mel na ay Amadou Gaye. Euh, Adama Gaye père Amadou Gaye. que man pour man euh, fi ñu toll ñoom tey ci presse. man jàpp naa ne am na yoo xam ni bàyyi woon reporter di leen ko waxal. Mhm. wala bàyyi woon seen ay booy nekk ci organes yi formé ay xare ñu dem moo gënoon man pour man ñu nekk au devant de la scène ba lii di am parce xoolal tey xoolal monument bu toll na aadama Gaye tey bu ñu ko tëjoon ci kaso bi mais image Sénégal ci wàllu presse mais lu bëri dana yàqu. Mhm. parce que xam nañ ko siiw na. àdduna danañu ŋàbb yaa may comprendre. Mm-hmm. si loo xam ne peut-être mën naa am ay erreur man dama jàpp ni euh, un journaliste de de, de am na loo xam ni quand c'est très sensible ak man régime boobu bu fi mënti nekk dama mës gëm ni journaliste y a question ces questions trop sensibles man dama gëm ni da ko war a traiter ak responsabilité. Mm-hmm. quel pour soit nag foo far Pape Alé loolu laa doon wax ci moom Pape àll mii loolu laa doon wax ci moom am na yu mu doon wax. c'était pas le bon moment pour di ko dire di ko wax. parce que dafay am loo xam day yëngal réew te xool li li ci garaaw ci presse mooy boo dee tërkim benn journaliste tey àdduna ngàmb la. ah ñun ñëppay jug ah. loolu mooy problème journaliste moom comme ay bëy boobu. moo tax ñoom nag dañoo a a problème. léegi nag yow ba léegi saa. bu ah. fekkee ni yow ku la laal ñëpp yëg ko. da ngay di dugal nit ñi situation boo xam ne laal. merci merci mais foofu laay mais mais mais nag man. mais je man am na fu ma dàkkaloo xam nga dafa ku ñu wax euh, Pierre Belmar moo daan def. Belmar enquête impossible. si si moromu Adama gay la fi ñu toll wala bi muy faatu sax. moo mag Adama Gaye. Mhm. mais Adama Gaye doon nañ xaar ci moom man keroog bi ñu waxee dama ne liñ koy wooye xaj na pour rek preuve tey responsable li mu wax xaj na xam na ko. am na fu mu ko teg maanaam fu mu ko teg te man damaa ko encouragé bu fekkoon. am na fu ko teg non source non non day non bi. xam nga source. xam nga loolu bu journaliste jàpp ne boo waxewul sa source kenn waru laa jàpp déedéet maanaam éthique la dañ na la boo waxee source bu ëllëgee keneen du la source mhm. maanaam dañ la wax ne sa source waroon naa jar bu buñ la doon rey sax bul ko waxee nga téye ko léegi Pape Alé boobu ngay wax xam nga tey yaay xool ndax jaral na la wala jaralu la mhm. boo waxee loo xam ne war nañ yàpp jàpp waxoo sa source bu ñu la ci jàppee ba nga dem kaso day daf lay gën a renforcer ngay amaati source parce que dañ ne kii loo ko mën a joxit bu dee dee du yoolee mais foofu la affaire bi toll kon Adama Gaye waroon nañ ko xaar déedéet bu mu retraité de man dama d'accord ne lii Pierre Bernard di def waroon na koy def di animer ay émission yoo xam ne man émission affaire u Moustapha Ba dimanche lañ ko indi mais lundi laa taxaw fii ne lii dañ ko war a autopsie dañu war a bàyyi yenn kilifa yi bu ñu faatoo mel ni kaña moo faatu. parce que man damaa jël exemple Moustapha Ba ak exemple Samba Lawbe Dieng bu woon Prodac. ma ne kooku bi mu faatoo ci la mambay ñaa ginnaaw bi doog a wax lu tax doog a wax bi muy dund waxut néew ni yomb sosal parce que du tontu ma ne kon ñooñu beneen bi ma tegaat ci keneen muy Ahmed Amar Ahmed Amar entrepreneur sénégalais bu liggéey ba am xaalis macha allah ba am action ci ay société française ak foofu mu ami action mu fay dem di am réunion conseil d' administration ñu ne dafa am malaise faatu na mais kooku waroon nañoo xool lu ko faat. fii am na ancien opposant camerounais wala activiste camerounais bu ñu faat les années 60 France. mais tubaab yi ñun yi gars yi di def lu ko raw foofu dañ koy def fenn rek la état Sénégal juume laa jàpp mooy néew bi dañ leen a waroon a wax warul jóge France te autopsie woon te damaa jàpp ne xaj na liñ yéexoon a yëg ne faatu na. ba ay njabootam indi ko xaj na looloo tax mu bette. lu tax France gaaw yónnee kooku ci nit koo xam ne France xam na ne wax dëgg yàlla am ay service service secret français yow xam nga ne caaxaan xam nañu Moustapha Ba ba xam keneen ak keneen yow mii sax waa France xam nañ la. waxantuma laa kon bu ñu ko. bëlëf bëlëfee ba indi autopsie. daal di def noonu man man ci boppam wóoluwuma leen te sañ naa ko. Mm-hmm. gii ñu ma leen dara mais wóoluwuma leen parce que lu toll ni ancien ministre des finances faatu ci anam yooyu ay nit sax di arrivé jusqu'au ci foofu ñu koy wax xaw ma lan Afrique intelligence wala naan kooku naan daa xaru fu mu ko teg moom. Mm. man damaa jàpp ne li ma waxoon rek mooy ne ba may wax nañ ko autopsie na am boobu procureur waxagu ko. te pour pourtant man mi ko wax jànguma benn jàng bu poussé mais dama xam ne ci àdduna bu nit faatoo suñ borom ci boppam daf ñu ko digal te lim ñu digal. ñëpp ci yam muy que ça soit muy muy muy muy muy euh, li ñuy wax euh, politicien bi wala wala wala nangam nag aaya suñ borom moo ko wax wa isxataltum nafsan fa daara atum fiiha wallahu muxrijun maa kuntum taktumun ngeen faatee di ko giññante yàlla daa indi autopsie ca jamono yonent yàlla Muusa jaarale ko ci aw nag ñu rey nag wi jël geen bi bàcc ko geenu nag boobu tey mooy appareil microscope yi gars yi di defee. mooy parquet yi taxaw mooy lépp. parce que loolu suñ borom. dafa gën a wóor matière bi élément bi suñ borom. moo weesu voilà suñ borom da ko fi teg mm-hmm. doomu aadama ko créé de. doomu da ko découvrir mais lu fi yàlla bàyyi la. d'accord kon fa daara daaratum fiihaa. wallaahu muxrijun maa kuntum en tout cas am nañu mbégte bu baax sëñ Jili aadama ba ci euh, mm-hmm. Sawolof. Mm-hmm. foog ñu dellusiwaat nag moom ndax def nañu ñu ngi bëgg def presque trois heures de temps. te liñ bëgg amaguñ ko. te ba tey xaajalaguñ. donc loolu nag da ngeen cee war a am. loolu moom taxaw seet mercredi il faut ñu amaat beneen. Ablaye Ndiaye ñëw parce que nag saa li bëgg du ko nangu de. waaw lii moom xam naa doo ko nangu loolu mënul nekk de. bu dul dossier bi. waaw bu dul dossier bi moom yaa ëppale mais sànq moom. waaw joxoon naa la plus de temps. parce que parce que day jéem a équilibré. yaa ko la wax de da nga koy kii. wóor na yàlla yaa ko la wax loo ko seetlu nag. donc maa ngi leen di xam mooy bu ñu ko coronavirus. waaw. sawaay li mu wax. moom <laughs> boobu loolu. waaw bari na loolu loolu ay minutes ñetti nit <laughs> moom defal parce que nag euh, moom moom loolu man ma. Ablaye moo xam ne. d' accord ma débat boo ma wooyee nee naa ko kan kan la. Ah. mu ne ma a xam ne. Ah. Ablaye man moom dama koy leb. dëggantaan loolu rek la mais ci ñun quoi ci Ablaye. non lan mooy problème bi donc gërëm nañu leen di gërëm ñi doon seetaan seen teraanga Ndeye Fatou dafa sonn mu ngi naan ma. Euh, sonn naa ñuy wax matin moom mu ngi moo tax xam naa mu sonn. ndeysaan donc euh, Ndeye Fatou mën ngaa ñibbi ak jàmm nag dem reer ba ba suur daal di tëdd. nelaw ba suba ak jàmm incha gërëm naa ñu nekkoon ci euh, technique bi yëpp muy Ndeye Fatou ak moom moo jër ngeen jëf